paire de manches dans votre émission hebdomadaire euh, l'invité de MNF euh, tey nag euh, ñuy dalal nag koo xam ne boobu ba tey ñu ngi euh, xaar sa prise de de, de parole euh, mu nekkoon euh, kàngam ci gouvernement bu Sénégal ñu koy woowee Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye moom nag c'est le maire de Linguère muy poste bi nga xam ne moom la yor mu di mandat élu local waaye nag ca benn at ci ginnaaw Euh, maanaam jusqu'à novembre 2020 Aly Ngouille Ndiaye bokkoon na ci kàngamu gouvernement bu Macky Sall 2012 euh, la tàmbali euh, nekk ci boobu boobule occupé woon na poste ministre des mines et de l'énergie ci wàllu mine ci wàllu énergie am na ci ñaari dossier yoo xam ne ñu ngi ko tegandi leeraay bi leeraluñu ko bu baax mu jëmoon ci dossier ArcelorMittal ak li nga xam ne moom la lancinante et éternelle question euh, de la gestion euh, du pétrole euh, sénégalais ci li nga xam ne nag moom mooy gouvernement Macky Sall yi ba tey mu nekk ci ministre de l'industrie et des mines ci li nga xam ne nag moom mooy suu Mohamed Dionne ci la jël ministère de l'intérieur yoroon en charge l'organisation de l'élection présidentielle jàmmaarloo ci ak ñi nga xam ne ñoom ñooy opposition bi ci novembre 2020 coup de théâtre loo xam ne kenn xaaru ko woon ñu tekki ndombal tànkam boole kook juróom benni kàngam yoo xam ne ñu bari jàppoon nañu ne yi sàll ba nguuram di jeex du mas a wu ak ñooñu lu ni mel nag bi mu amee coow li bari woon na torop kàngam yooyu ñu leen doon jiiñ ne ñoom dañoo am ambition présidentielle Aly Ngouille Ndiaye ci ñooñu la bokkoon waaye nag depuis quelque temps précisément depuis mars dafay multiplier euh, les preuves euh, di wane ne moom mu ngi ci wetu Macky Sall ba tey président de la République recevoir na ko ak waa euh, Jolof moom dem na ci Linguère amal fafu forum sur l'emploi ba président de la République waxee ne il faut ñu régler li nga xam ne moom mooy xëyu ndaw yi li nga xam ne nag moom mooy la preuve la plus palpable de sa volonté de rester au côté de Macky Sall mooy ci tournée bii ñu jógee ni nga xam ne nëgëni samedi mu taxaw ci Linguère génn ak ay ñoñam ak yéen ki nga xam ne moom mooy président de la République Macky Sall réaffirmer li nga xam ne euh, moom mooy son ancrage dans la majorité euh, présidentielle waaye nag tableau bi rafet na trop euh, ce qu'il faut retenir c'est que depuis quelque temps Aly Ngouille Ndiaye ba mu génnee gouvernement bi ba tey dafa commencé am ay baat yu koy contesté fële ca Linguère mun nañ ci wax ki nga xam ne moom mooy jibi Ndiaye nekk directeur général de l'ANER euh, yëkkati ay gëtam teg ko ci li nga xam ne euh, moom mooy euh, commune bu Linguère lan mooy rapport am ak Djibi Ndiaye lan mooy soubassement wu contestation naissante boobu ci département bi tamit Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam ne dañu ko doon présenté comme le maître incontesté du Jolof am na tàmbali na am rivalité mu di Samba Ndiobène nekkoon fi ministre de l'élevage ci léegi mu yor ministère de l'équité collectivité territoriale euh, donc dinañu dellu siwaat ci dossier yooyu yëpp euh, fas yéene rek sëkkër moom euh, waxtaan bu yaato yaatu et cela sans langue de bois Alimou Ndiaye bonsoir. Euh, bonsoir Maïmouna. ñu lay euh, dalal euh, fii ci plateau chaîne de télévision 7TV nga génn ci li nga xam ne euh, moom mooy l' espace gouvernemental public depuis novembre 2020 tey mun nañ ko tuddee genre rentrée politique boo xam ne da nga ko fas yéene def. est-ce que d'accord nga euh, ci appellation bi. Euh, d'abord may mën a ma may ma ma nuyu sénégalais yi ñuy seetaan certainement ci Sénégal ak yépp ci àdduna ndax léegi xarala yi permettre na lu ne euh, ñu nuyu kilifa yi diine yi ak kilifa yi aada yi ci réew mi jiital ci nuyu bi euh, xalif général des mourides suma suma sëriñ sëriñ Muntaxa Bachir Mbacké Euh, di nuyu également euh, gannaaw bi nuye waa Sénégal yëpp ma beral nuyoo nag waa waa Jolof euh, ndax seen taxawaay ci ci suñu wet seen taxawaay également ci mbooleem luy soxlay Jolof te foog naa ne dinañ dugg léegi dans le débat wala nañ ko du ma jàpp sax ne man damay def rentrée politique parce que mosuma def sortie politique Euh, te yaakaar naa ne waxoon nañ ko également bi ñu génnee aussi ci gouvernement bi ne ñun ñu ngi ci donc duñu jàpp ne rentrée politique la. mosuloo def sortie politique loolu dinañu ci dellu siwaat euh, bi nga génnee ci sa génn ci gouvernement bi àndoon ak euh, coow tuuti. Euh, par la suite un mois après génn nga euh, ngir dalal sa militants yi dinañu ci dellusi tuuti waaye Alioune Ndiaye tey euh, dafa dafa la coïncidence ne pas fortuite tey le 23 juin 2021 23 juin 2011 foo nekkoon ak lan nga doon def 23 juin 2011 fekk na boobu d'abord maa ngi ci sama entreprise bopp di ci liggéey te le matin ma xëy wax sama chauffeur mu déposé ma devant l'Assemblée nationale bi ma déposé devant l'Assemblée nationale euh, toog naa fa sax lu yàgg d'ailleurs maa ngi toxawoon ak ñoom bokk de euh, militants de société civile ou bien des partis politiques euh, kiñ ci gën a ràññee moo doon Seydou Sy Sall ñoo taxawoon foofu noonu ak ñeneen parce que li remarquable woon ci 23 juin 2011 mooy du woon affaire parti politique parce que booba nekkuma ci benn parti politique man dama yoroon sama mouvement bopp waaye bari na ay cadre sénégalais yoo xam ne yi dara boole wu leen ak politique dañoo jugoon rek euh, parce que d'accord ñu woon ci li bëggoon a xew ci 23 juin 2011 bu ñu fàttalikoo bés boobu mooy bi assemblée nationale euh, war voté donc la loi bi waroon na instituer dindi donc le quart bloquant également bi waroon na mettre en place le colistier ou la colistière en tout cas poste de vice-président euh, donc loolu moo doon coow li le 23 juin 2011 Sénégalais yëpp dem ko euh, étudiants yi ñu ne wax dëgg yàlla aussi ñu fàttaliku à l'époque euh, toute l'opposition réunie euh, ña nga fa woon euh, pour bañ loolu Euh, ñu mën cee ràññee aussi euh, ay ay député yoo xam ne ñu ngi woon ci biir Cheikh Bamba Dièye ci la woon bi mu takkee boppam ci bunt bi ñëpp gis nañ ko ainsi que également maître El Hadj Diouf mu am ci taxawaay boo xam ne bi kenn du ko fàtte euh, wax dëgg yàlla ci ci bés boobule waaye tous les leaders de l' opposition ña nga fa woon ba le 23 juin 2020. tey bu ñu waroon célébrer waat juin ndax yow di nga ci mën a dem ndax doo am kersa tuuti. Euh, taxawaat euh, pour défendre les mêmes idéaux. ah déedéet du ma ci am benn kersa pour dem ci d'ailleurs tey damaa waroon dem ci ci ci célébration bi parce que ña fa nekk wax nañ euh, lu yàgg ma ak ñoom avant ñuy dem doon préparer émission bi moom ma tere woon dem ci ci célébration yi waaye ñoom xam na ne ils sont je de tout que avec eux parce que la doon bañ ba li war nañ ko bañ d'ailleurs li ma li ma ci naxarlu rek man mooy lu tax lu tax defuñu ko benn événement. parce que tey dara. nga jàppoon ne ñaari. Euh, dara wul bu ñu waxee dëgg rek dara justifié wul mu am Grand Yoff am place de la nation ñoom parce que ñoom ñëpp ñoo doon bokk li doon xeex 23 juin bi 2011. boo seetloo peut-être ñan ñoo fa nekkut mooy ñi nekkoon en activité à l'époque dans le pouvoir donc ñi ci des ñëpp même bu fekkee dañoo xaajaloo tey wala am ci ñoo xam ne ñi dañuy ñëw ñu bees. même même même xeex bi loon waroon nañ ko moo def ci même endroit bi mënoon nañ ko def ci endroit bi comme neex yore say pancarte identifié mais ñu jàpp ñoom ñëpp muy M2D ak M23 ak ñëpp dañ doon kaas moo moo doon xam nga 23 juin 2011 euh, dafa symbolique dafa symbolique parce que le pouvoir libéral Euh, nekk na fi de 2000 à 2011 daanaka secoué wuñu régime am comme il faut il y a eu la secousse de 2009 avec les les les locales mais 23 juin 2011 sénégalais yi toute euh, toutes catégories socio-professionnelles confondues toutes les couches sociales ñoom ñoo ñëw daje pour ne. Euh, euh, touche pas à ma constitution euh, pour ériger wu contre le, le l'adoption du ticket et le quart bloquant pour dénoncer lépp loo xam ne ay dérives démocratiques la woon une année après euh, on a réalisé la seconde alternance. non matul année. Euh, matul année sax daanaka on a réalisé la seconde alternance euh, démocratique euh, benn ci li ñu doon défendre mu di touche pas à ma constitution mu di lu ñuy woowee li Ismaïla Madior Fall di woowee les réformes constitutionnelles déconsolidantes gis nañu ne tamit de 2012 à nos jours constitution bi li ñu ko laal dafa bari loolu loolu et cela a des visées politiques loolu moo tax ma ne la ndax. yéen ñi demoon défendre 23 juin euh, pour euh, défendre constitution bi pour bañ yenn yi ndax tey dix ans après est-ce que doo am kersa taxawaat di ko wax d'autant plus que yow nekkoon nga ministre de l'intérieur nekkoon nga ministre de l'intérieur ak ci sa magistère sax constitution bi laal nañ ko à des visées euh, électorales. mais constitution du document bu kenn warta laal. mais du loolu ngeen doon wax. deux mille waxuñu waxuñu woon loolu de bu newoon touche pas à ma dafa am yoo xam yoo xam ni dafa nekk ci constitution bu ñu ko laal li taxoon ñu doon wax touche pas à ma constitution le quart bloquant que quand même j'étais là comme acteur je suis pas venu après ensuite c'était le ticket présidentiel yooyu leen doon kaas ci constitution bi kaasuñu ci woon leen ah, ah si moi j'étais là waaw mais c'est touche pas à ma constitution euh, nit ñi ci ñu jël constitution bi di ko lëmbër lëmbëree euh, rien que pour servir des visées électoralistes c'était sa en fait euh, le sous ñaar yooyu daal moom pour vise électoraliste la woon ñaar yooyu parce que ñaar yooyu mu ci am mooy quart bi ak euh, comment dirais-je ticket bi yooyu moo doon vise électoraliste yi mais constitution amul benn réew bu ne kenn du ko laal la jamais à vie c'est pas possible parce que àddina day dox. réew mu ne mën nga arrivé à un moment nga def ay changements su sa constitution donc même ñun bi ñuy ay changement sur la constitution am na yoo xam ne l' essentiel mooy na nga ko jaarale ci yoon am na yoo xam ne puisque c' est des changements majeurs bi ko président def dafa dem référendum laaj sénégalais seen avis. yeneen yi nga xam ni peut c'est pas des changements peut-être d'aussi grande importance mu jaar assemblée nationale comme li ko ko constitution bi permettrait bu ñu aussi ne constitution bi mooy texte fondamental dafa bind ci dañu bind ci biir texte bi ci yan anam lañ ko war a mën a changer ak ci yan anam lañ ko war a mën a changer ak lan mooy war a changement bu war a jaral ñu dem laaj peuple bi seen seen kaddu ak boo xam ne bi mën nañ ko def laaj représentant du peuple yi seen kaddu. l'adoption de la loi sur le Euh, classe politique bi opposition bi kenn àndu ci ak yéen ak société civile bi d'ailleurs sax CEDEAO enjoindre na leen Euh, pour ngeen euh, revenir ci euh, nu mu tudd la modification du du du du du code électoral un presque avant la présidentielle bi ngeen utiliser pour exclure définitivement Karim Wade ak Khalifa Sall yooyu yëpp bokk na ci nit ñi lu ñu jàpp ne ce sont des réformes déconsolidantes et pourtant yéen da ngeen da ngeen def forcing utiliser seen majorité à l'Assemblée nationale et faire adopter cela te loolu dafa bokk ci luy trahir avec l'esprit du 23 euh, juin d'abord Maïmouna non je ne suis pas d'accord d'abord parrainage bi il faut quand même aussi ñu xool euh, mën nañ ci dikk avec des éléments concrets à l'appui euh, président Macky Sall bi mu ñëwee au pouvoir en 2012 organisé na élection législative juste après on peut peut-être même dire que c'est dans la continuité parce que c'est par rapport li mu fi fekkoon bi ñu demee 2014 ñuy organiser ay élections locales mais on s'est retrouvé pour la première fois avec 2700 listes de candidatures à l'échelle nationale ñuy dem élection législative 47 listes te ci 47 listes yi cinq rek ñoo ci amoon le quotient ñi ci des ñëpp c'est vrai suñu démocratie moo ko permettre loi bi moo ko permettre plus fort reste la ñu amee député nombre de partis politiques yi di yokk de façon extraordinaire 2016 ñu permettre avec les modifications de la constitution boobu ngay wax beaucoup de dispositions benn bu ci am solo ci wàllu ci wàllu élection ñu ne. Euh, kum neex tey mën nga dem ci élection locale wala législative sans pour autant nga bokk ci parti politique loolu dafa bokkoon ci loo xam ne lii man mii damaa bokkoon ci ñi ko doon kaas depuis 2009. parce que avant may bokk ci parti boobu dama nekkoon man cundum nekk moon ci benn parti te doon kaas loolu ne am na nañu war nañu xool yan critère lañ mën a def pour que ñun ñu mën a dem élection locale sans ñu bootu forcément ci benn parti donc loolu mooy li nga xam ne lii moo fi nekkoon bi bi ñu waaj a dëgmal ay élection jàpp naa ne nag jaadu na bu ñu xoolee historique élection 2012 ñu ne il faut ñu teg ay critères yoo xam ne yii dana mën a tax ñu segg critères yi am na dans tous les pays du monde amul benn critère bu am ay soit ay primaire wala ay mode de présélection. mais dafay am consensus. non dégg rek consensus. vous ne déterminez pas de manière arbitraire. Non. les règles du jeu ba pare ngeen. imposer ko à une opposition. n'a nga loolu dafay yomb di waax boo demee ci texte yi xam nga avant lii di am. mais boo daan nekk te amoo parti amoon na parrainage yoo xam ne dañ ko daan def ci constitution bi donc loolu du lu bees xaa ci yokk rek mooy am na lu ñu ci yokk mooy am dana laaj 10 la laaj 10 000 signatures donc loolu bokkut ci critère de sélection mais nit ñi nangu woon nañu ko déet waaw c'était adopté a fait l'objet d'un consensus c'était adopté comment c'était adopté comment c'était pas par un référendum. waaw donc peut-être ñi waroon nañu di voter adopté wuñ ko woon. dans des discussions yoo xam ne. bii euh, aussi am na discussion maintenant dans les discussions on peut ne pas être d'accord mais bul bul fàtte ne déjà man bi ma ñëwee ministère de l'intérieur d'abord d'abord y a eu des discussions avec mon prédécesseur Abdoulaye Daouda Diallo. bi mu organisé législative yi ma ñëw remplacer ko ñun bi ñëwee également on a lancé les discussions qui étaient ouvertes à tout le monde. l'élection était ouverte à tout le monde parce que aussi xam nga booy organiser élection jàpp naa ne kenn ku ci nekk surtout bu la ko dénkee da war a xool naka laa ko war a mën a organiser ba mu correct ce qui important mooy euh, ni ñu mën a permettre sénégal yi yi war parce que tout le monde ne peut pas être président de la République il faut pas aussi. naka laa ko mën a organiser en disant le ministre de l'intérieur qui va sur la 2STV qui dit en tout cas daal man dinaa inscrire. dinaa inscrire samay militants bu jour élection ba jotee ñuy dem voter alors que le ministre de l'intérieur a la responsabilité mu fexe ba sénégalais yëpp am seen carte électeur boo ko traduire sénégalais yëpp inscrire boo ko traduire noonu da ngay juum demeewul noonu comment ça ma nga man moom lu mu wax lu ne mën naa ko assumer aw ma ci benn problème bi ma ko waxee teel a dama leen maa ko wax dama waxoon aussi mën naa ci dellu Pape Alé daf ma laaj ma ne ko ñun bu fekkente ne entre là il parlait aux militants pas au ministre ko ñun ku ci bëgg dimbale say militant pour ñu gagner wala sa candidat pour mu gagner na nga koy defee et je le répète aujourd'hui na koy defee mooy bu ñu ubbee liste yi boo amee ñu war a inscrire nga inscrire leen boo fekkee da nga leen war a mën a dimbali ñu inscrire nga def ko bugg seen i carte d'identité génnee nga dimbali leen ñu jëli ko jour vote bi nga dimbali leen ñu ci loolu même su ma ko waxul ñëpp xam nañ ne loolu la. c'est comme ça que ça marche mais je l'ai dit mais mënuñ def leneen te loolu la ma ci doon bëgg a mooy Sénégal weesu na fu ñuy sàccee élection la preuve d'ailleurs pour la première fois au Sénégal ñu def élection pour la première fois il y pas de prolongation du bureau de vote il y a pas de PV sur lequel on peut trouver une seule contestation il a euh, des des des candidats à l'élection présidentielle. mais un million d'électeurs jotuñu seen carte. non non non c'est pas avéré. gis nga si c'est pas avéré parce que quand même maa distribuer les cartes. Oh, je vous dis. jotul en majorité non ça c'était de potentiels votants pour l'opposition on avait pendant les législatives qui ont précédé tout, le monde sait le monde sait que d'abord le délai était très court. entre bi ñuy changer fichier bi ak bi ñuy dem élection législative mais élection présidentielle non du tout d'ailleurs c'est pour la première fois bu nit ñi jotu seen carte d'identité ni ñuy pour la première fois au Sénégal ñu am Euh, élection présidentielle ce niveau de participation le taux de participation lu ko justifié nit ñi am nañ seen carte électeur ah. moo tax ñu dem participer ji ñi voté Sénégal bii pas musu ñoo voté Sénégal pour voter président président Macky Sall légitimité populaire bi mu am ñi ko woteel musu ñu woteel président du Sénégal c'est ça la réalité te le euh, euh, bi ñu defee parrainage bi lan la ñuy def ñu ne pour nga nekk candidat war na nga mën a au moins téeméer bu nekk ci ñu bindu benn du 08 maanaam mu tudd benn sax ba benn ci ñoom ne bëgg nañ nga nekk candidat bëgg nañ nga nekk candidat c'est vrai dama leen dellusiwaat ci affaire affaire CEDEAO bi parce que c'est quelque chose qui peut se discuter hein, parce que y a dans certains pays il est possible que nga parrainer plusieurs personnes il faut peut-être reprocher le fait que parrainage bi bu fekkente ne kenn nit nga parrainé dafay mel ni que le vote est prédéterminé ce qui n'est pas forcément avéré la preuve am na ci yoo xam ne ñii te loolu pour pour weddi loolu sur les cinq candidats qui étaient retenus un des candidats n'a pas eu le nombre de presque eu le nombre de de de de, de parrainage bi mu am donc ça veut dire que quelque part peut-être que loolu mën nañ ko reprocher c'est réew mais sinon vraiment koo xamee ni kii da nga bëgg jox la suffrage sénégalais ci 100 sénégalais yu bind amoo ci benn sax bu la nanga wax ne mën nañ bëgg mu bokk élection yaakaar naa ne c'est pas quand même méchant. amoon na euh, l'histoire du parrainage de manière générale. du loolu la homme politique yi ak la classe politique rejetée. li ñu rejeté mooy le mode de mise en œuvre c'est-à-dire euh, modèle bi ngeen teg. pour éliminer, pour, pour, pour disqualifier des, des, des parrainages euh, non, au non, niveau du Conseil ça, il n'y a pas modèle plus te transparent. modèle boobu bokk na ci li lor euh, de potentiels candidats yoo xam ne ils toutes les chances suis, de concourir je suis, désolé mais quand même moi j'ai bien la liste alors oh, bi ñuy defee ubbi parrainage bi 142 personnes ñoo dem conseil ñoo dem conseil conseil jëli de parrainage bi ñu je pense vingt sept ou vingt deux personnes ñoo déposé xam nga système bi naka la doon fonctionner le logiciel qui contrôle le parrainage boo ñëwee conseil constitutionnel da lay teg xam nga c'est vrai que loolu sax ñoom peut-être dañ ko waroon a filmer ndax nit ñi gis ko xam nga Sénégal yi ci biti rek la ñu génn di wax boo ñëwee ñu jël sa fichier dugal nga toog yaag ñi nga àndal ñoom ñu toog ñiy contrôler toog lancer programme bi sa kanam. programme bi déroulé su paree ne la nangami électeur nangami parrain baax na nangami parrain keneen am na keneen ku pare ne parce que tout le monde sait que am na un peu de un petit commerce un petit parrainage bi ci affaire boobu ci ci élection bële ah, ñu ne la parrain yi nga def baaxul nangam yi nga def ci parrain baaxul soo baree ñu defal la est-ce que tu es entre intervalle 0,8 1 pour cent boo ci nekkut ñu ne la éliminer la bu fekkente ne am nga ay doublon ñu ne la dem nga am nga possibilité remplacer ko. je dama lay jox un cas président Macky mais fàttali nga buuxante bi amoon ba mimitre nekk ci kanam moo jiitu woon président Macky moo nekkoon ci kanam ba ñu defee contrôle du parrainage mais le président Macky Sall a eu 4000 et quelques et mo c'était sans possibilité mu rattrapé wu sans possibilité mu rattrapé parce que il était le premier et c'est pas des doublons les autres ont eu des parrains am nay doublons am na yu du doublons ainsi de suite kenn ku ci génn ku ne procès verbal la lay bindal nga reconnaître ko dal di génn wax ji ci biir la ne waaye nekkul ci biir. yéen yéen a jàpp ne le modèle il est transparent lu mu transparent transparent waroon ngeen ci jéem a wut consensus et ma question jàpp nga ne Sénégal dafa war les recommandations de la CEDEAO. oui mën na ko suivre ci benn aspect cest dire que moom laa la expliqué aujourd'hui moi je peux être d'accord que mën nañu xool ne parrainage bi au lieu que mu nekk un parrainage exclusif mën nañ waxtaan ci suñu biir pour que peut-être kenn mën a parrainer deux ou trois personnes ça peut éviter de prédéterminer vote bi parce que loolu rek la CEDEAO wax mais terewul parrainage bi par CEDEAO li mu wax mooy effectivement bu ñu ko defee nii on va forcément limiter parce que le le le le, le truc n'est pas illimité le fichier n'est pas illimité mais peut-être boo yoo waxee possibilité que may mun ci élection bii ñu jëm mën na parrainer diw ak diw ak diw peut-être deux ou trois personnes selon ça peut éviter le contre-pied des membres de la majorité yi naan ñoom le Sénégal est un état souverain. Euh, CEDEAO amul pour intervenir euh, ci suñu processus électoral. le Sénégal est un état souverain xam nga loolu lu ñuy jàngat ne ni ñun ñëpp xam nañ ko mais dañuy wax sur une question politique xam nga question politique waxtaan du ci ñàkk. question politique waxtaan du ci ñàkk c'est pas question de problème de souveraineté hein. j'ai dit moi personnellement j'ai défendu ça man maa ko défendre mais j'ai dit liñ ma wax parce que aussi loolu aussi alternative la woon mais xam nga Maïmouna bi ñuy dem defi parrainage bu fekkoon dañu bëgg exclure rek mais mën na def parrainage bu exister feneen boo xam ne bii dañ lay wax ne nangam bi conseils municipaux wala député wala nangam ñoo lay ñoo lay voté mais loolu boo ko defoon ñu ne mais parce que ils savent que ñoom ñoo yore tous les conseils municipaux. mais day flagrant trop sax. day flagrant donc c'est pour limiter moo tax bi ñu tranché ñu ne nañ jox parrainage universel. parce que bu boobaa nit ñi gannaaw ñooy wote ñu di ku bëgg dem ci nit ñi ñu jàppale la bu fekkoon dañu bëggoon rek ci parrainage bi ne dañuy écarter ma ak Mademba dañuy wax ku amul 10 députés parce que am na ay réew yoo xam ne loolu la am c'est des pays de grande démocratie ah il faut nga parrainer ay nit yoo xam ne am na mandat député wala peut-être ay conseils municipaux wala ay euh, euh, comment dirais-je membre du conseil des collectivités territoriales loolu lépp mënoon na mënoon nañ ko def mais boobu bu ñu ko defoon. compte tenu de configuration institution yi mais bu boobaa day gën a flagrant ñu ne dañoo bëgg a ma Massamba Massamba ak Mademba parce que boobaa c'est très simple. donc yow comme solution da ngay préconiser ñu xoolaat la la possibilité pour que nit ki mën a parrainer plusieurs personnes. c'est loolu rek lañ ci wala parfaire. gisuma CEDEAO waxul leneen di waxul ne parrainage dañ ko dindi. mais CEDEAO dafa ne. dafay fausser les règles de l'équité. mu la wax dégguma ne à na avis en tout cas pour moi le problème c'est surtout beaucoup plus à ce niveau qu'ailleurs parce que gëm naa ne CEDEAO mënut a wax ne Sénégal te je sais que tous les pays vont le faire parce que bu ñu ko deful dootuñu wote ci réew mi xoolal ñi ngi jëm élection locale may mën élection locale yii ñu jëm gis nga bi ñuy dem élection 2014 au Sénégal je je pense que on était autour de 200 et quelques partis mais tey ñoo ngi ci 313 partis benn tey on a on permet à la euh, à, aux gens qui ne sont pas membres de partis politiques de pouvoir participer à une élection locale mais si rien ne change on passera de 2700 listes à peut-être 4000 listes vous imaginez élection yi di ñëw nii ça va être très difficile à gérer il faut ñu trouver quand même des filtres et c'est normal et c'est ça qui permet d'organiser l'élection vous avez tellement compris que vous avez fait sauter l'éventualité du parrainage ci li nga xam ne moom mooy élection local yi ça veut dire que xam ngeen ne parrainage bi c'est problématique. non loolu lépp c'est pas c'est pas ça je vous dis moi personnellement j'étais ministre de l'intérieur d'accord mu woon sax ci ñu wàññi parrainage local. d'accord ci woon. waaw mais puisque c'était un consensus je me suis plié. parce que man gëm naa ne parrainage local waruñu ko def pour cent xam nga lan mooy 1 pour cent. 1 pour cent pour ñu la permettre nga dem voté ji moom ñàkk ko dafa yem bu dee parenage local parce que dëkk bu am 10 000 électeurs 1 pour cent de 10 000 xam nga ñaata la 100 xanaa 100 boo dee ñeenti sa ñeenti famille mbokk rek da nga fa am 100 personnes yu la parrainé donc c' est pas c' est pas c' est pas restrictif mais pour bëgg pour bëgg jàmm président la république bi ñu bi mu recevoir bi mu recevoir donc les partis lors de dans le cadre du dialogue national moom moo ne nañ ko wàcc 1 pour ndax opposition ko demandé woon c' est ça la réalité. Abdoulaye Daouda Diallo moom moo organisé les de euh, ñu def changement yow nga ñëw euh, yoroon l' organisation de l' élection présidentielle de 2019 opposition bi de nee nañu. yow yaay ki mettre en œuvre la machine qui a permis à Macky Sall de gagner l'élection de 2019. Je l'accepte mais sans tricher. Euh, tricher woo. ah. wallahi lazim. Il n'y a aucune tricherie dans cette élection présidentielle. Il n'y a pas dans ce pays. Mais élection mais favoriser nga sa candidat. n'y a pas de favoritisme. je vous dis Maimouna da nga bëgg ne yow. déglu ma euh, Macky Sall ak euh, Ousmane Sonko. kaay kaay expliqué la nga yemale woon. peut-être que président ngi may seetal opposition également parce que am na ci ñu bari yoo xam ne daanaa waxtaan ak ñoom. élection bii ñu génn élection su ko gën a transparent benn président Macky Sall mook ñoom ñoo yem ci fichier électoral bi ça je peux vous le xaw ma élection yi ko jiitu nu mel de notamment 2012 je sais pas comment ça se passe mais élection 2019 président Macky en tant que candidat président de la République n'a pas eu accès au électoral la preuve bu ci amoon accès du du am 4000 parrains yu ñu ko rejeté. mais euh, 4000 parrains. du dara ah. Idrissa Seck rejeté nañ ko plus de 6000 parrains. oui Idr waaw mais il était dans l'intervalle. Ah. dama la bu amoon bu amoon euh, bu amoon. Euh, bu amoon loolu euh, euh, euh, président Macky Sall bi nga ko waxee ne bi nga ko waxee ne dañ ko rejeté 4000 parrains il était étonné parce que xam naa disposition yi nga xam ne yi moom jëlul na ko avec toutes ses équipes pour pour defar ses parrainages nombre yi mu indi xam nga ñun li ñu jotoon ci parrain nu mu toll bari ba de mais terewul ñu rejeté 4000 parrains donc vraiment le système là il est bon gis nga bi ñu génnee ci ci parrainage xam nga organisation élection bi d'abord amul benn favoritisme ensuite dañoo xooloon lépp li nga xam ne lii moo daan gàkkal élection ñu fexe ba amul ci élection bii boo xoolee élection lan la lan moo ci daan am problème problème numéro un moo daan disponibilité de matériel moo daan problème bi disponibilité disponibilité à temps ñu jël suñu matuwaay pour que loolu du gàtt bi gannaaw bi parrainage bi defee ba nga xam ne bii xam nañ ne cinq candidats moo am c'était devenu plus facile pour la première fois ñu dem élection deux mois avant l'élection présidentielle deux mois je dis tout le matériel électoral est déjà arrivé à destination le matériel lourd mooy urne mooy yooyu yëpp di ànd ci bi deux bi ñuy démarrer campagne électorale fekk na boobu ñu définir xam nga booba dana fekk déjà un mois avant je pense c'est c'est vers 20 jan 20 janvier quelque chose comme ça ci lañ arrêté woon les les les candidats bi bi conseil constitutionnel génne dès qu'ils ont sorti les listes on a demandé aux imprimeurs qu'on avait choisi ñu imprimer les bulletins puisqu'il y en avait que pour cinq c'était pas difficile li daan am problème souvent boo ko daan déglu ci élection mooy dañuy wax ne bulletin de vote yi diw moo ëppale diw wala diw ay bulletin de vote am amul dégg nga ko ci élection bi passé déggoo ko de déggul parce que bi lo bi ñu paree bi ñu waaj dem ci loolu man maa dajale la direction générale des élections ak sama secrétaire général euh, feu Ibrahima Sakho paix à ak sama directeur de cabinet ñu waxtaan comment on va faire parce que élection bi jege si na jàpp nañ affaire bi te vraiment cette fois-ci je veux pas matériel manque ci benn bureau de vote ñu ñu ne bon bon monsieur monsieur le ministre tàmm nañ ko def nañ def nangam ainsi de suite ma ne leen non am na lu ñu tàmm def lu baaxul parce que chaque année ñuy wax ne bulletin yi manqué na c'est moi-même ma ma jël ak la DAF jël le fichier électoral ma wax la DAF mu stratigraphier ma le fichier électoral jox ma ma xool ko. def ko def une classification définir la taille des paquets par bureau de vote c'est ça qu'on a commandé à l'imprimeur les les les les bulletins de vote là l'imprimeur moo ko compté directement si qui fait dans chaque bureau chaque bureau sur les 14 651 bureaux yu nekk Sénégal xam nañ taayu bulletin yi fay nekk benn sous-préfet pour la première fois au Sénégal naa appelé à l'aide à quelqu'un pour mu compter ay bulletins. boo ko waree layu suba. da ngay taxaw nga ne élection bi da nga ko organiser de bonne foi poser woo benn acte pour favoriser ton candidat. je pour défavoriser. Non. les autres candidats. non je vous le dis. mieux gis nga bi ñuy bi nga xamee ne bii war nañ dem ba takk affaire de sécurité j'ai appelé moi-même le chef d'état-major général des armées parce que une bonne partie des bureaux de vote c'est l'armée moo koy couvrir ce n'est pas la police ce n'est pas la gendarmerie li ci ëpp ci bureau de vote yi armée le chef d'état-major est venu le général au commandant la gendarmerie est venu le directeur général la police à mon bureau ñu waxtaan comment sécuriser les bureaux de vote les instructions sont très claires ku amul raison bu ñëw ci centre de vote bu mu dugg ci bureau bi ku amul raison ñëw ci benn centre de vote bu mu dugg ci bureau bi maanaam boo amul carte bi lu ci dugal amoo carte de mandataire tambambaalu bi ci bureau yi bu mu am c'est ce qu'on a fait ci élection présidentielle bi ñoom ils ont répercuté les instructions gis nga la veille de l'élection l'avant-veille le vendredi je suis parti à Touba et à Mbour pour vérifier juste au hasard de bureau bi ma demee Touba xam nga Touba il y a pas beaucoup d'écoles comme ni am ci yeneen dëkk yi pour ñu voter ci école parce que ñoom souvent c'est euh, à l'air libre dañuy def disposition quand je suis venu à Touba vu li ñu fa def comme disposition euh, il y avait même pas de barrière de sécurité c'est séance 30 que j'ai appelé la police et la gendarmerie ñu envoyé ay barrières avant ma fay jógee barrière yi nekk na en chemin ñu sécuriser pour que vraiment maa ne jour bi vote benn benn jour la rek bureau de vote dinañ ko sécuriser entrée ak sortie bu fi kenn ñëw di taxawaalu bu fekkente ne wotewul mieux j'ai on a même instruit les gens qui font la sécurité que ngeen gis baaraamam ñu cëpp ko mu xonq bu leen ko bàyyi ci cour bi muy waxtaan mais c'est ce qui a fait d'ailleurs que cette fois-ci pour la première fois amul prolongation amul prolongation. léegi résultat final bi mooy on est allé à l'élection Macky Sall. personne n'a contesté. au premier tour euh, si y a eu contestation. y a eu contestation y a eu contestation xam nga contestation. xam nga Idriss d'ailleurs l'opposition s'est organisée en pôle. loolu pour dire qu'elle ne reconnaît pas. la victoire de Macky y a eu contestation. nga am boo koy non non non y a pas eu de contestation. parce que contestation ou élection du lii. quand même xam nga politiciens yi nag bu ko neexee coow on est d'accord mais je veux dire contestation élection mooy ca bureau de vote ba kala fa teewal bind ne contesté naa loolu lay contestation élection am na ci benn kilifa boo xam ne bii ci opposition bi la bokkoon bi mu ma laajee mais nu ngeen fexe ba gagné ma ne ko mais est-ce que dafa am benn bureau bu sa gars yi contesté ma ne ko boo fekkee contesté woo au niveau du bureau buñ ko dajalee au niveau du département ka la ci guddi du contesté donc ñooñu bu ñu jógee résultats yi yónni ko cour d' aussi contestation dafa am. en tout cas daal donc contesté wuñu. <laughs> may mun a li mooy dañoo nekk ci seen waxtaan seen biir di wax rek waaye contesté wuñu. la preuve génn weesul weesul guddi ga. <laughs> keroog di dem. di di dem ci euh, comment dirais-je euh, quartier général ñuy annoncé résultat bi ma met jën di wax résultat boobu heure boobu heure boobu tembe résultat yi ëpp na lool parce que moi j'étais dans mon bureau depuis 17 heures. les les compilations avec on a augmenté le nombre de bureaux tests j'avais les résultats en temps réel. waaye xam nga nag yéen yéen yéen da ngeen da ngeen vous êtes de fin politique c'est-à-dire élection bi jour bi les choses peuvent bien se passer mais problème bi xam nga fan la nekk. ci processus bi ci début ba ba ci fin bi mais euh, euh, lu ñu passé la. passé nañ ko euh, d'ailleurs sax kenn ci ci ci ci premier participant yi ki jël deuxième ànd naa ak yéen ki jël quatrième ki jël cinquième ànd naa ak ki jël quatrième sama yéen actuellement kenn rek a ci àndul ak yéen mais ñu bokkoon ci élection ba yëpp ñu ngi ak yéen voilà ñenn ñi du manière tacite ñenn ñi de manière très claire. Ah léegi ñu président de la République nit ñi di la xaar. à la primature ñu bari jàppoon ne ah alikat liggéey bu rafet bi mu def ci élection yi ba permettre Macky Sall mu gagné <laughs> moom mooy nekk premier ministre président de la république à la surprise générale euh, supprimer le poste de premier ministre euh, ma for ci weewu béy ne yow yaa ngi toogoon sa bureau di xaar waroon a gisee président de la république pour ñu matérialiser sa nomination au poste de premier ministre nga wax ak président 17h mais déggante waatu leen. non lan nga ci mën a confirmer c'est pas avéré amul du tout. dans les plans pour que nga jël. poste premier ministre loolu la président Macky Sall nga koy laaj. bés boo amee occasion ba toog moom moom nga koy laaj waaye doo ma ko laaj man. <laughs> ma proposé wu ñu la woon poste premier ministre nga toog di xaar di ci am yaakaar. non non du tout loolu koy dem la wax du dañ bés boo toogee président Macky Sall parce que moom rek moo la ci mën a indi tontu boo mën a gëm wala peut-être boo du gëm mais bu dee ci man rek li ma la mën a wax mooy kenn proposé ma la. ban heure nga yëg ne. Euh, nga xam ne poste premier ministre bi finalement dañ ko supprimer heure bi ñu ko déclaré. bi ñu ko déclaré ah déedéet bi ñu ko déclaré. Ah, waaw bi ñu ko déclaré laa ko yëg. mais waroon remplacer John à la primature. ah déedéet pourquoi moo koy remplacer parce que euh, d' abord man bi may bi ma bi John moo nekkoon. pendant qu'on était dans le gouvernement John moo nekkoon jusqu'à ce que ñu changé premier ministre donc bi ñu ko changer moom lañ reconduira jusqu'à ce que ñu éliminé ko c' lui-même qui est parti à l' national waaw mais dafa amoon ànd da nga amoon waxtaan ak président que da ngeen d'accordoon ci ne naa la amul waxtaan boobu jël poste bi nee la waxtaan boobu amul ke la ko wax fi doon nii bu fekkee ne yooyu bay la ko waxee ah xam nga sax duñ koy duñ koy duñ koy weddee ci wax juñ for ci wéewu béy am nga wax jooju c'est tellement sérieux que duñ ko for ci wéewu béy ah, donc heure boo amee occasion toog président Macky Sall boo ko laajee peut-être mu mën a la ci tontu mais man li ma la mën a tontu man gannaaw waxtaan yu ñaar ñoo ko seq mooy amul da nga doon xaar ñu récompenser la à la hauteur de son engagement. man j'ai été suffisamment récompensé Maïmouna xaaj ko man d'abord damay sant yàlla sant président de la République parce que quand même man j'ai été avec le président pendant huit ans et demi sans interruption 3 avril 2012 ba 1er novembre 2020 mu jox ma lu bari lu mu joxul nag samay naataangoo ci gouvernement parce que man d'abord 2012 je ne m'attendais pas à être dans le gouvernement 2012 parce que man bi may ànd ak président Macky Sall dugg ci gouvernement taxutoon ñu ànd xaw ma ñeneen ñi de mais man damaa signé moom xam nga signé damaa signé ak moom ne ko ne ko nañu ànd ci élection soo gañee lii laa bëgg. te lii laa bëgg doo ci gis ministre. lan nga bëggoon. la ma ko bëggoon mooy man dama bokk jolof jolof nag am lu mu tekki ci réew mi am lu mu tekki woon ci réew mi ndax réew mi toll lay temps daanaka boo ci génnee jolof dara dootu ci des je parle de l'histoire mais ñu dem ba loolu daanaka amutul fenn fu mu feeñ ci jolof malgré le fait que on a toujours été présent jolof manqué lu bari. c'était ça le sens de mon engagement c'était pas autre chose c'est vrai te Jolof ku ko bëgg bëgg Sénégal parce que daanaka mooy Sénégal mais li ma engagé woon président moo doon loolu avant may engagé ak président dama def xayma jàngat bindu bindu lu téere fay cabinet document bi mi ngi ak man 168 pages étudier ma Jolof tout ce qu'il y a ma dem wax ko président Macky avant président Macky Sall am na yeneen leader yu ma recevoir waxtaan ak ñoom. Donc vous étiez à deux de vous entendre avec Idrissa après... Non, je n'étais pas à deux doigts, parce qu'on est là, je, ma koy gis yëpp am na seede ndax xam nga politique moom léegi baax na bu loo ci def lu ne moo am seede mais moom laa njëkk a gisante gisante nañ à deux reprises on ne s'est pas entendu bokk na ci ñi ma mujj a gis mais auparavant peut-être moom président Macky Sall 2009 man xam nga nekk musuma nekk PDS man donc xaw ma ko woon je le connaissais tout simplement comme les ministres du du du, du PDS. 2009 bi nga xamee ne bii génn na génn na président Macky Sall njëkk na ñëw sama kër bi ñuy dem élection locale 2009. c'est vrai on n'a pas eu ce contact jusqu'à ce que mu bëgg réew mi bi mu bëggee réew mi li ma yore la yore naa ko man li ma bëgg mooy lii ku ci bëgg ànd ak man dama waxoon président mooy bu ñu àndee soo gañee nga defaral ma lii jël kayit bi jox ko wax dëgg yàlla la ma waxoon mooy durant sama périple bi may def fan naan naa fukki fan ak benn jolof donc li nga may wax yëpp lu bari xam naa ko ci effectivement am na dëkk yoo xam ni président Macky Sall dem na fa te man demu foon loolu moo doon suma engagement ak moom maa financé sama campagne électorale def ci samay moyens yu baree bari président Macky Sall donc xam nga lu ma doon xaar man booba ah bu paree nag mu ne ma ah la ñu waxoon nañ ko def mooy def jof jolof def na ko waaye daf ci jàmbaas mooy boole ma ci gouvernement bi te mënoon na ko ci bañ a fekk ndax du woon engagement bi dugal ma ministère de l'énergie et des mines dugal ma mine et industrie du indi ma intérieur benn bu mu ciy dugal bu ne tàgguwuma dama yégal tey it yeggoon naa moom foo xam ne fii wax dëgg yàlla damay yëgal ci lu bari sax donc vraiment man je considère personnellement que man defal na ma lu bari. kon xam nga nag on te choisit par sur 17 de sénégalais yoo xam ne yii gënoo leen lenn nga nekk à ce service là service boobu wax dëgg yàlla euh, def nañ ko liñ ci gën a amal solo mooy fuñ ci dem fu ne def nañ fa fulla ak. fa waaye waaye waaye xam nga. xam nga nag euh, euh, nguur nag boo ci yàggee euh, lu bari dam koy fàtte. sauf man parce que man parce que man mosuma cee génn dama ciy judd. <laughs> waaw mais nga juddu ci nga jege ko dafa wuteeg bu dee yow yaa ngi koy exercer pleinement bi ñu génnee 2019 ñu reconduire la ci gouvernement bi mu am wax yu bari yoo xam ne dafa tàmbale. ñu leen di des proches du président de la république di leen di leen tudd di la ci boole naan da ngeen am ambition euh, présidentielle euh, mosuloo jël temps wu toog weddi tuuma réaffirmer li nga xam ne euh, moom mooy sa coloré bi la lié ak président euh, Macky Sall da ngeen bàyyi noonu et puis quelques fois sax euh, vous avez posé des actes en termes de com avec vos vos hommes yu doon indi jiixi jaaxa ci xelu ni ñi ne ah ñii kat muy Aly muy Amadou Ba. Euh, muy euh, Aminata Touré euh, muy Matar Cissé mooy ñi ñu doon jiiñ waxuma ne dëgg la mooy ñi doon jiiñ muy Matar Cissé muy Mouhamadou Abdallah Dionne ah ñii kat li ñu leen di waxal du dëgg te ci ñi doon jiiñ sax daanaka Dionne tuuti rek lañ ko doon wax mais ñi ci gënoon a fésle yow la Amadou Ba ak Aminata Touré. wax bi nga wax fii ci sa relation ak président Macky Sall mënoon nga ko fa wax ca temps boobu. waxuloo ko publiquement euh, te it par moment. Euh, defuloo benn effort pour weddi loolu. xanaa loolu ñu la doon ji. dëgg xam nga xam nga man d' abord xam nga man euh, du ma weddi wax ju amul solo. amoon na solo de. Ah non du am na solo de. non. amul solo. ndax loolu indi na crise de. Eh, indil benn crise ah kay non indil benn crise parce que bu ñu doon crise indil benn crise ah indil benn crise parce que jàpp naa ne président Macky Sall bu fekkante ne moom jàpp na loolu dara terewul mu wax ma ko man su ma jàppoon loolu man li ñuy wax dara terewul mu wax ko parce que nag. président de la République kenn ku ne xam ne jege na ministre de l'intérieur chef de cabinet bu président de la République ma muy en l'occurrence Mame Mbaye Niang waaw ah. bu amee fitu yow ministre de l'intérieur mu tudd la teg ci sa ci sa dodd yenn accusation yooyu am na fu mu ko teg wala am na ku ko jàppale wala am na ci fu mu wéer dama ne ku ko mënta wax li ma amal solo mooy man di sama jëmmi bopp je n'ai pas jugé utile weddi wala dëggal quoi que ce soit ci wàllu parce que li ma jàpp mooy président de la république moo ñu tànn teg ñu fi moo am sañ-sañ dindi ñu heure bu ko neexee te it la ma ko waxoon te wax ko bu ñu paree demee secretariat topp ñu ko woon te wax naa ko léegi ci njëlbeen ga toppu ma ko woon pour post mais ce que damu leen ba jàpp ne Macky Sall ñemetu leen woon laal. non parce que bu leen bu leen laaloon nguuram tas. déedéet non euh, et ça je vous je vais vous dire une chose une leçon que j'ai retenue de feu Ousmane Tanor Dieng j'aime souvent le répéter quand je suis dans certains milieux président de la république boo ko jege mukk ba miin ko ba nga jàppee ko xarit c'est lui bay m'avait donné cette leçon su ma rappelle à l'aéroport un jour j'ai retoni ça paix à son âme dañuy man dama toujours considéré que c'est le président de la république ñun même buñ ko falee dañ koo fal pour mu am ay pouvoir parce que loolu moo ko mën a permettre mu gérer ak ñi mu bëgg ànd ak gérer man tey jii nekkuma dans le gouvernement waaye yàlla def na tey bari na loo xam ne su ma ko xalaatee wax ko président Macky Sall dina ko dégg te pourtant je suis pas dans su ma soxlaa dana ma woo su ko soxlaa danaa ko woo parce que ànduma ak woon moom ndax post encore une fois parce que man de président Macky Sall fekk mu may chômer man dama fekk may liggéey. am liggéey bu baax am salaire bu baax nee naa la 2012 maa financé sama campagne ba mu jeex tàkk jaayi suma kër téye samay bien samay mbokk jàppale ma. waaw d'accord mais fekk na la ci niveau 1 euh, grâce au pouvoir bi mu la jox nga yegg ci niveau. ci niveau 20 mais mais bu dee en terme de moyen non peut-être en terme de titre way parce que déggu woon ministre avant lui dégguma woon ministre avant lui quand il au pouvoir. parce que man damaa bëgg waaw góor man kenn ma yab ci liggéey man damay liggéey. waaw mais quand même euh, le pouvoir vous avez un peu grisé quand même ngeen demoon nañ ba am l' impression que Macky Sall était était était seul quelque part. yow yaa am boobu euh, impression. Euh, bu problème yi amee yéen les les les les grosses pontes du du régime là duñ leen dégg. Ah, ngeen taxaw ah, jëmmal seen seen seen man d' ailleurs li ñu may reproché ah. mooy dañ ma d' man li nga wax ne moom li ñu may reproché mooy doo leen taxaw jëmmal seen bopp. non xanaa da euh, ngaa doo leen fàtte seen bopp xanaa da ngaa jaawale période yi. déedéet déedéet. man man ba bi may génn pouvoir wax dëgg yàlla amut benn problème surtout que surtout que euh, quand euh, xam nga su ma jëlee parti bi ma nekkee ministère de l'intérieur da ngay jël la première partie mooy di 2017 ba 2019 boobu on était trop préoccupé par les tout ce qui est problème d'élection tout ce qui est problème d'élection c'est moi qui montais au chrono tout ce qui était problème d'élection c'était moi qui montais au chrono bi ñu génnee ci ci euh, élection yi la deuxième partie donc jusqu'en novembre 2020 mais tous les problèmes c'était le ministre de l'Intérieur qui était qui était exposé yan problème moo fi amoon c'était euh, comment dirais-je euh, le couvre-feu c'était euh, mbas mi loolu loolu moo fi nekkoon c'était l'immigration euh, clandestine bi c'était ça et c'est qui vous voyez c'était le ministre de l'Intérieur donc ça vraiment vous vous êtes trompé de période ou de personne non li ñu doon wax dëgg la da amoon ambition da nga doon sóoraale wuutu président. yegg seegul xam nga li may wax mooy 2019 mënoo génn ci sol xam nga Sénégal des fois da ngay poser sax problème ni ñuy convoitiser ay postes man damay poser problème surtout dans la classe politique président de la République mënoo ko fal tey commencé gudd liggéey nga bëgg ko. fal suba da ngeen commencé woon organiser wu ci parti bi. ku ci nekk di xalaat succession le parti n'est même pas organisé non xalaat day organisé non organisé wu ku ci nekk yow yow déjà yow jolof nga nekk mais yow da ngay jox sa bopp jolof nga cosaano mais da jox sa bopp benn assendance nationale c'est-à-dire yemoo jolof rek da ngay tey ñu dégg la parcelle suba ñu dégg la Thiès loolu ko am ambition présidentielle moo koy doxee non du tout kaay ma yëgal la benn mbir et ce que je dis am nay seede gis nga bi ñuy waaj dem élection législative donc bi ñu paree le référendum président Macky Sall lam ñu wax man d'abord wax na ma ko sax avant ñuy dem secrétariat mooy élection bi ñuy dem am na solo du élection bu parti te soxla na majorité pour parce que 2017 la xam nga 2017 dafay mel ni dans certains pays comme ay élection de mi-mandat élection législative yooyu lam ñu instruire lam ñu wax mooy kenn ku ci nekk fu mu am ay nit na leen téye ku fexe ba ñu woteel suñu suñu liste. moo taxoon ngay ngay dem du man rek ñun ñëpp ko def. c'est normal kenn ku ci nekk fa nga amee nit nga fexe ba nit ñi ñi ñu jàpp mais loolu c'est tout à fait normal et c'est logique. et on le fait pour lui d'ailleurs on may man li ma élection présidentielle li ma impliqué Dakar gi pour pour pour wax ak yenn yenn militants yi mais defuma ko defuma ko li parce que amoon temps dem fa. et c'est pas mes militants c'est pas mes militants waxu débat 2019 li ñu la doon accusé yëpp daara amul mais ñi ko accusé c'est leur problème c'est même pas mon problème ça j'en fais même pas une préoccupation mais mosoo ci échanger ak président de la jéemuma ko sax parce que man nag lu ma intéressé wu intéressé wu novembre 2020 ñu def remaniement et ñu dindi Aly Ngouille Ndiaye dindi Matar Cissé dindi Amadou Ba. Euh, Mohamed Boun Abdallah Dionne presque six pontes ñu jël leen dindi leen te dara politiquement euh, Macky continuer di di di gouverner euh, fan yooyu mu am beaucoup d'agitation ci sa proche yi ñu ne dañ Macky Sall daf la trahir euh, Macky Sall proposé woon nañ la sax poste EGPR nga ne président na bàyyi ba nga waxtaan ak say mbokk président ne la dinaa la revenir mais président woowaatul. loolu lépp dara du dara du ci dëgg la kay. <laughs> dëgg la de. loolu lépp dara du ci dëgg la dëgg xam nga xam nga waxtaan wi. dëgg la dëgg la lay wax de dëgg la. xam nga waxtaan wi li ci neex fi mu toll nii yow yaa ngi duudal duudal di wax nit nee na nit nee na te doo wax nit ki la dëgg la de président da la proposer le poste EGPR nga ne ko na la may nga waxtaan ak say mbokk. Macky Sall ne la je vais te revenir Macky woowaatu la. yow li nga gis mooy eh, liste gouvernement d'ailleurs sax. am na dignitaire murid yu doon def médiation entre yéen ñaar. yow nga ne leen bu la président revenir no ton. di nga joxe réponse. wallaay lazim ku la ko waxul dëgg. <laughs> maa je vous le dis. Eh. ku la wax loolu waxul dëgg. tout simplement. président la république a choisi une liste j'en fais pas partie. je les remercie parce que pendant longtemps j'ai fait partie de ces listes-là. Il eu des dessous. Il pas eu de dessous. Vraiment, il pas eu de dessous. Xam nga encore une fois. Euh, même Et au début, vous avez eu du mal à encaisser le coup. Moi, non, moi j'ai pas non, dans, entre d'abord, moi pas du mal à encaisser le coup. Xam nga moi d'abord je suis un musulman je crois au destin. Gis nga li nekk sama kanam moo ci war jot kenn mënu ma cee jot. Donc xam naa ko, ça c'est le destin. yàlla bindoon na ne le premier novembre je serai pas parti de la liste du gouvernement. ah mais na la quand yow nga yaakaar loolu. de xam nga déjà yaa ngi wax li nga wax ni kon xam nga surprendre ma. surprendre la wax nga déet. non surprendre na la ci ci biir remaniement bi lool la am mais yow gisee nga président deux jours avant. et après. waxu dara. et après il a le droit il n'est pas obligé. deux jours après. mais mais encore une fois encore une fois yëgoo ci dara. non encore une fois xam nga yow li ngay wax yëpp diw nee na ma diw nee na ma gannaaw waxoo diw bi kan la wax dëgg yàlla du am du li am solo li ma la mën a expliquer daal mooy président la république ba may njëkk a nommé ministre dañ ma woo rek booba fekk na maa ngi dem seeti sama sëriñ di waxtaanee ak moom ca àll ba ñu woo ne ma. parce que boobu amul consultation bu ñëw dañ lay def ministre de l' énergie et des mines ci laa ci yem tout simplement yeneen ministères yi aussi c' est presque comme ça la demee. waaw mais cette phase vous n'avez pas aimé le procédé ki nga gisee que Macky Sall deux jours avant waxul na da lay génnee. gouvernement ah, yaa ngi wax ni moom Macky Sall digoon na ma déjà xaaral rek ma wax la que séquence temporelle que waxuñu la dara ensuite que par la suite euh, dans la journée du remaniement euh, ñu proposer la euh, affaire boobu. après ca sa proche yi doon wax ñu la jege la. yow daal da ngay def weddi woo leen. yow daal da ngay def déedéet non déet non quand même j'ai pas fait de communiqué pour dire que j'étais pas non. du tout waaw say proche ñoo ne Macky daf la trahir. waaw mais non xam nga loolu. Macky ba mu lay génnee xam nga c'est xam nga ay proche moom. Euh, kenn ku ci nekk euh, mën na exprimer une frustration wala un sentiment de. c'est des proches euh, proches hein? ma expliquer dama ne la mën nañ exprimer ce sentiment mais quand même le fait que man ma nekk peut-être njiit ci kaw war na mën a tax ma xam luñ du xam wala encaisser luñ du xam luñ du mën a encaisser ñoom sinon jarul ma leen di jiite bu fekkee dama war a mel ni ñoom duma leen mën a ñoom war na am loo xam ne lii peut-être bu ñëwee ci ñoom mu nekk naqar lool bu ñëwee ci man ma amortir ko parce que loolu moom loolu la ñu doy njiit mais day wuñ ko leneen bu fekkee leen naqari dal di may naqari buñ tax a tali mu tax a tali boobaa dootuma leen mat njiit damay ànd ak moom ci tur. mais nan nga jëlee ton absence de la liste du gouvernement. mais nu ma ko jëlee lu mooy que je suis partie seulement de je fais pas partie des 32 ou 35 sur les 17 millions de Sénégalais qui sont là et je considère que am naa liggéey am naa possibilité def leneen d'ailleurs boobu ba léegi maa ngi liggéey. boobu ba léegi bu fekkente boobu ba léegi non seulement maa ngi liggéey li ma wax te man du ma waxantu je suis dans le parti. je suis dans le secrétariat du parti yàlla defal na ma tey jii ak loo mun di wax su ma soxlaa président Macky Sall damay wax ak moom te jàpp naa ne li ma koy wax dana ma dégg danaa def loo xam ne lii moom peut-être après sax laa ko koy wax pourtant bi ma génn ci. mais poste EGPR boobu fan la jógee. lu ma ci xaw fu mu jógee laaj ko ci ñu la ko wax. man daal du ma la ci wax lenn parce que loolu intéressé wu ma man li ma jàpp daal mooy SGPR bi fi nekk parce que président Macky def ko fi muy suñu suñu jeune frère ñaanal ko yàlla mu réussir ci lim de loolu moo intéressé mais poste ba intéressé parce que il faut que un sénégalais rek moo koy jël ku ko ci mënut a jël na fa réussir may moo ne man loolu mooy suma suma suma préoccupation j'ai pas de fixation. xam nga euh, deux mois après le remaniement. Euh, dem ngeen secrétariat exécutif réaffirmé. Euh, bon wax bu rafet la rek. wax non bu ñu gëm la <laughs> bu dul wax bu ñu gëm bu ñu bu doon wax bu ñu rafet. man j'avais une excuse parce que man maa ngi woon Linguère. waaw mais ngeen réaffirmé mais j'aurais pu ne pas venir ngeen réaffirmé euh, seen coloré Macky Sall mais yow waa parti bi sax dañ koy wax ñu bari dañuy rafetlu sa taxawaay depuis les les événements de de de mars. Euh, gën nga reconnecté ak ki nga xam ne moom mooy président euh, di jël ay initiative euh, di dox di dem euh, di di ñëw euh, bu ñu génnee ci sa mobilisation bi ba ñenn ñi sax jàpp ne yaax Macky Sall maintenant voilà les euh, les relations sont au sont au beau fixe xawoon nga mer sax au début. mais léegi kan xawoon na mer moom yow yow yow yow yow. Oh, man xam nga man. mais léegi meratu la xam nga xam nga événement yi. événement yi yi nga wax nii président Macky Sall novembre li génn ci gouvernement bi on a échangé des message en décembre on en a échangé en janvier. donc c'est pas c'est pas lié forcément aux événements c'est pas lié forcément aux événements mais quand même réew mi dama cee bokk am ci rôle nekk man dinaa la nekk avant may nekk ministre sax daa am rôle mu daan joué. mais jàpp leen waxu leen quelque part ne si on était là lii du am. non je ne peux pas le dire ça c'est aussi c'est trop prétentieux si xam nga loolu aussi xam nga euh, dañuy éviter di wax ne maa fi ne yàlla ma tiim xam ne ne ki ma remplacer. bu doon sama sago dana def loolu lu ma def raw li ma def parce que d'abord suma rakk la séq nañ maanaam moom ay relation bien avant lii di am bien avant ma yéene ko jàmm à tele point que même bi mu fa nekkee su ma yëgee yenn yi dama koy woo wax ko ñu ngi may dégg peut-être en toute transparence je l'appelle pour dire ah monsieur le ministre nangam ak nangam. dañu ne wax ne l'expérience a parlé euh, Antoine venait d'être installé. Euh, ñeneen ñi jàpp ne il a péché par inexpérience affaire yi daf ko daf ko dépassé woon bon je ne peux pas je ne peux pas le dire parce que quand même le ministre de l'intérieur euh, il a un rôle important à jouer c'est vrai il est en train de le jouer en train en train de faire du bon travail il peut y avoir man aussi ah man j'ai vu des événements d'autres ministres de l'intérieur ont eu des événements. yow ban événement nga. ah de le 19 avril. tout vous vous rappelez 19 avril. ça n'a rien à voir non 19 avril. sax amul woon dara da nga jël euh, ville bi quadriller ko journaliste sax mënuñu mënuñu circuler génn force de sécurité yi même pour dox 100 mètres mënuñu ko donc 19 avril c'était sous contrôle mais les événements de mars là. ah. waaw mais euh, bon c'était presque un régime qui chancelait. donc ce n'est pas là la on est pas arrivé là mais vraiment. Euh, mais jàppoo ne euh, bees bees bi ak inexpérience bi aussi ça on un peu joué. non je ne pense pas le ministre de l'intérieur il a certes un rôle à jouer mais quand même déjà ñi nga xam ne ñiy ci lay pour def loolu ñoom am nañ expérience yàgg nañ fi non. ensuite ñu police amul woon munition pour faire face. massage ah, je ça vous aussi yéen nag xam nga li ngeen di xam xaw ma ko. police amul woon munition pour faire face gendarmerie sax dafa leen doon ravitailler mais yow ba mu fa nekkee xanaa yow. Euh, jéemoo régler problème boobu loolu daal jàppal ne doo ci am. xanaa jëndoo matériel. loolu la si jàpp jàppal ne doo ci am benn information ci man. mais c'est grave. bu fekkee ne une police qui fait face à une situation euh, à une crise politique euh, ab di manquer ay munitions. dama ne la loolu la jàppal ni. mais certains cadres du ministère de l'intérieur nee nañu c'est ta responsabilité. c'est possible bu fekkente ne ñoo ko wax de toute façon y a pas de problème tous les éléments sont là man li ma li ma jëlee police la ma fa bàyyi lépp xam naa ko lépp yor naa ko. mais ci côté équipement bi. Euh, ah, lan nga ci président Macky Sall a fait beaucoup en équipement. non mais yow bi nga fa nekkee. beaucoup euh, côté équipement bi. waaw ah, on a fait beaucoup en fonction de nos moyens. def nañ ci lu bari équipement personnel ah oui wax dëgg yàlla si y a un aspect boo xam ne bii président Macky Sall investir na ci wax dëgg yàlla euh, moyens humains et matériels police gendarmerie armée kenn warantewul loolu sapeur pompier. mais yow ci sa magistère. sans magistère c'est la même chose je dis sans magistère allez regarder les budgets mi ngi fii c'est des choses publiques dara du ci secret mi ngi ci budget yi du lu ñuy xumtoo mi ngi ci budget yi te le budget est en ligne dama xool ci budget yi ngeen comparer d'une année à une autre vous allez voir ce que le président a fait vous regardez aujourd'hui tout le matériel qu'on expose en défilé loolu le président Macky Sall beaucoup d'investissements ont été faits dans le domaine bok mais la moo tax ci événement yi police mënul woon faire face. Oh, convenablement. non non ils ont fait face quand même faut pas dire mun nga faire face. non convenablement laa wax convenablement mooy euh, gis nga même seen camion à bi en panne. leen ko woon utiliser. ça je ne sais pas. si le camion à eau était en panne. Donc, peut-être si c'était en panne, si vous le dites, ça peut C'est de la mécanique. La mécanique peut tomber en panne. Mécanique d'État Pourquoi pas Mécanique d'État état ou privé Ah oui Ah bon Mécanique d'État chargé de, de, de, la sécurité. Mais maintenant, panne. Il faut, il faut, il faut peut-être non, non, il faut peut-être maintenant voir. xam nga mën a nekk panne ak war na nekk panne c'est différent su fekkente ne xam nga matériel moom mi ngi dépendre lañ ca am ñaata la toll. ak laaka lañ koy utiliser tout simplement mais c'est possible mais ça j'avoue que c'est des questions sur lesquelles moi je peux pas répondre parce que j'étais plus à la police j'étais plus à l'intérieur moi j'ai quitté l'intérieur en novembre les événements ont eu lieu cinq mois après lan euh, mooy sa position sur les événements qu'on a traversés en en mars sur l'affaire Ousmane Sonko euh, précisément bon sama position d'abord je je regrette lii am ba mu am ay nit ñu ci dee ba mu am ñu ci yàq seen alal ba mu am ñu ci ñàkk seen liggéey ci une histoire boo xam ne bii mënoon na bañ yegg foofu aujourd'hui c'est le regret de tous les Sénégalais tout simplement accusé nañ ko def na wala deful jàpp naa ne petit tribunal mënoon na ko àtte tout simplement procédure bi jaar yoon comme ni ñu calmé nii moo nañ ko calmé début kenn du ci dee. ñan ñooy les responsables de la de la tension ñan ñooy indi tension bi. ñan ñooy indi tension bi koo bëgg a teg tension bi. non damay laaj nga ne comme ñu calmé. woote ñi ñi woote ñi woote loolu moo indi tension bi kan moo fi indi tension. ñi woote lan. ñi woote euh, rassemblement avec euh, rébellion bi tout ça là ñooñu ko ñoo indi. tension donc Ousmane Sonko et ses partisans. mais bien sûr kan moo ko def keneen s'il n'avait pas appelé. à ces rassemblements s'il n'avait pas appelé les gens peut-être loolu du ci am faut pas appeler un chat une chatte une pas compliqué hein, simplement. mais xëy na tamit boo leen àndul woon nag précipitation euh, ba jox ko de raisons de croire que wala ba jox à ses de des raisons de croire que euh, c'est un coup monté aussi. peut-être que loolu tamit du am ku dem marché ñu lay marché wan coup monté. waaw du ku monte bu fekkoon ne dañ dafa massage bi amul fekkoon am na yoo xam ne quand même pas di ku monte ku monte ci lan et puis état lu muy monte ay coût ci ay massage yow yëgoon nga loolu. yëgoon naa lan. séance de massage man jóge naa ko bu yàgg. <laughs> jóge waaye yëgoon nga ko. jóge naa ko bu yàgg donc man yëgu ma woon ay séance de massage. nekkatu ma ministère. d'accord mais ba nga fa nekkee yëgoon nga ko. yëgoon naa lan que danaan marché avant <laughs> ah loolu de yaa ma ko wax tey man mu foog ne daaw fu nekk période boobu. ci ma dégg man finalement yéen may jox xibaar yi de yéen waa taskatu xibaar ah, yow nga yoroon ministère de l'intérieur. jóge naa dépositaire de nombreux renseignements. waaw waaw loolu moom loolu moom place bee ko waral rek waaye jóge naa fa boo fa jógee ba léegi fi mu ne amatuma renseignement bu mooy ngeen may jox yéen. léegi yéen a may renseigné fi mu doon nii mu bëggee lu xew lu xew. waaw mais. Euh, yéen a ñoom Ahmed Aïdara ak ñoom seen lay déglu de. yow da ngay masawu non. man sama kër lay maasawu bari dem dem rek. waaw mais donc nit ku nit ku nekk am nga droit dem maasawu. ku la wax amul droit dem maasawu. waaw déedéet ma waxuma affaire maasal dama ne. Ah. waxuma droit am na droit man man mii ma maase naa bërgi dem rek sama kër man sama kër lay maase maase professionnel ñëw sama kër sama soxna indi ko waaw loolu koy def. waaye duma dem ci àll bi dimaase wu am na am na ci droit nag du ma ne amu ci droit am na ci droit waaye nag am na ci yoo xam ne aussi boo ko defee dara mën na la ci fekk rek tout simplement mais bon je dis tout simplement que jarutoon lii quand vous am na yoo xam ne boo ko defee dara ça am na lu mu def. ah xam nga xam nga un homme politique. même dafa libre c'est ça la gis nga dafa am tànn yoo xam ne boo ko xasee tànn rek liy pesé ci yow dafa bari boo xasee nekk un homme public da ngay sóoraale toujours fooy teg sa tànk rek parce que am na un jour benn ma dégg sax benn waaye je pense que c'est xaw ma ban télé laa ko dégg muy wax ne wax ne Ousmane Sonko toll na fi nga xam ne fii même bu xaalis bu bu buy jënd buy jënd kii Euh, buy jënd dara war na xool weccet bi ñu koy jox je sais même plus comment il la comment il a parlé et il a raison cest à que ñun fi ñu toll doo mën a def lu la neex man par exemple avant may avant may nekk politique man fu ma neex laa daan dem fu ma neex laa daan dem mais depuis que je suis politique je suis ministre il y a des choses que je ne peux plus faire il y a des choses que je ne plus faire tout simplement wala boog je suis obligé xal xool fu ma fu ma mënta nekk ñan lay toogal bu dul bu dul affaire militantisme tu es obligé c'est c'est-à-dire position bee koy waral rek tout simplement parce que malheureusement dans notre pays te loolu sax du réew yëpp ah, mais suñu suñu réew mi politique boo ci xasee nekk dafa am facilement boo deful ndànk fu lay dëkkal surtout nag bu fekkente ne ku jigi dafa mel ni Sénégal nga xam ne dafa tar du ñu ku jigi ci lu bari sax tu sais pas sur des points essentiels. Eh, politique du may kenn ñooy c'est ça le problème dégg ma ne la tey jii nee naa tey jii waroon équation la pour ñu def benn kii bi waaye duñ may dara politique malheureusement. mais xam nga euh, benn histoire benn benn histoire accusation de. benn histoire accusation de de de viol bu opposé deux sénégalais Sénégal chancelé si ba scène internationale bi yëpp jël seen i gët teg ko ci euh, réew mi ay ndaw ñàkk ci seen bakkan. ay réew mi ay ndaw ñàkk ci seen bakkan nit ñàkk ci liggéey. Ah, xam nga bakkan yi rek la ñuy wax am na solo kenn werantewu ko bakkan yi lañuy ñuy dañuy fàtte sax au delà de bakkan yi tey actuellement am na famille yu ci tas. ndaxte seen i borom ñàkk nañ seen liggéey yàq nañ ci alalu sénégalais yu dul jeex parce que tey jii boo jëlee kaw total total peut-être que total la tudd nee nañ France ko moom waaye station yii ñuy tuddee total sénégalais yee ko moom ñii dañoo lépp dem tayle seen alal tayle seen kër ñëw investir jël ay sénégalais ña ko yàq yàqaluñ français yi sénégalais lañ yàqal Auchan man mii di wax ak yow j'étais sur le point de discuter et de négocier un contrat pour fournir à Auchan mais bi li amee j'ai dit ah attention parce que man tey maa di jaay ci marché marché marché bi ma daan jaay parce que jàpp naa ne c'est peut-être mooy moins risqué ñaata sénégalais ñoo fi nekk dans l'agriculture di produit di jox Auchan Auchan di jaay di leen fay di leen di leen fay ak ñooñu actuellement est-ce que seeni facture jot nañ mais moo tax ma bëgg la wax jeu politique ak adversité politique jaroon na loolu jaru ko je moom laa la expliqué cest à que man dama gëm ne Sénégal fi ñu toll politique mooy li ma la wax léegi nii président da nga koy fal tey suba nga bëgg ko remplacer doo ko sax may li ñuy wax délai de grâce dans des pays sax yenn am na délai de grâce waaye fii duñ sax am délai de grâce premier jour ña ngay commencé compter finalement nous on a malheureusement des politiciens professionnels de votre côté de ci seen biir mu am ci réew mi comme ci biti oui politicien professionnel daal des gens qui ne font que président boo ko falee mu ne la damaa bëgg réaliser nangam mais may ko tam mu réaliser bu demee sax ba ci kanam nga ne kii nekkul ci yoon bu la neexee nga commencé wax waaye doo fal président la mu prêter serment le trois avril le 6 avril nga daal di commencé wax ne ainsi de suite mais l'opposition est dans son rôle naturel. non c'est pas ça l'opposition dama ne la koo fal. taxaw xam nga aussi. mais opposant bi falul président bi. mais déedéet opposant askan bi ñoo ko fal. xam nga aussi bu nangoon ne démocratie la. askan bi moo ko fal à une forte majorité. j'ai dit le président Macky Sall dañ ko fal au premier tour avec un taux de participation énorme il a eu un suffrage qu'aucun président n'a eu au Sénégal ñi ko fal benn président musul am lim bu toll noonu bu ko fal j'ai les chiffres c'est ça la réalité kon nag gannaaw fal nañ ko mu ne dafa bëgg a def nangam ak nangam ak nangam mais nañ ko bay ba mu commencé nekk ba mu commencé def waaye def commencé gu sax ñu bëgg koo remplacer ça pose problème. da nga jàpp ne événement mars yi dañoo bëggoon remplacer Macky Sall. déedéet waxuma loolu événement mars yi c'est récent dama ne la loolu mi ngi commencé depuis 2019 dès qu'il a mais yéen seen côté ci responsabilité. Eh, lan nga jàpp ne péché ngeen. man jàpp ma ne péché ngeen li ñu péché. de quel côté. Euh, du côté de la majorité yow mi nekkoon euh, à l'extérieur un peu éloigné du du du du jeu. au quotidien j'étais pas si éloigné hein. moi j'étais pas si éloigné. a eu ces événements parce que maa ngi doon wax ak ñi ma war a wax ak kenn ku ci nekk. mais yéen erreur nga jàpp ne def ngeen ko ci. et bu ñu ko éviter woon mënoon nañu euh, euh, bañ a valoir li ñu am. erreur bi ci njëkk rek mooy woote bi xam nga loolu lépp li ci des yëpp les conséquences de ça su amutoon ndaje bi amutoon loolu mën naa lépp du ci am donc booy wax erreur mooy d'abord loolu tout simplement bu amutoon rek li des du am. boo nekkoon ministre de l'intérieur da ngay tere ndaje yooyu. ah waaw yow mu sa werante ni process bi demee du ko demee. boo nekkoon ministre de l'intérieur waxuma loolu dama ne ma ne ko ministre de l'intérieur damay tere ndaje ndaje mi loolu parce que moo doon njëriñu Sénégal te mise de l'intérieur loolu la def loolu moo tax coow li am ci defu leneen defu donc mu ne ko ministre du ma def leneen lu wees li muy def mooy tere ko. le préfet ñu ne lépp ci moom la tàmbalee. moo yore ordre public bi de préfet fi mu toll nii coow li dañuy tudd ministre l'intérieur mais en vérité c'est le préfet moo tax xam nga des fois day jafe sax ngay ngay ngay dindi la ligne mais c'est le préfet kii est le garant de l'ordre public xam nga doo fi dégg ñu tudd gouverneur te pourtant gouverneur mooy patron. mais le préfet dañoo jàpp ne ni mu ne gazer les journalistes disperser la la la foule. Euh, joxe ordre ñu jël Ousmane Sonko yóbbu ko dañ ne loolu moo indi jafe-jafe mënoon nañu bàyyi Ousmane Sonko mu def procession am dem wuyu ji tranquillement muy 14h muy 16h doon na doon yegg. le préfet moo wax ñu yenn Ousmane Sonko. xanaa seetaanuloo seen bi. man seetaanuma seen bi. ah kay. non seetaanuma seen boobu. bi muy def procession bi. bi mu nekkee Mermoz préfet ñëw na wax ak moom mu continuer procession bi ah. ñu ñëwee ba euh, fii nii côté côté ci ci sur la route de Wakam le préfet ah, mais xam nga aussi préfet déggoo ma ne c'est le garant nañ ko nañ ko c'est le garant de l'ordre public préfet c'est-à-dire dañuy jàpp ñu ñun ñëpp suñu sécurité ci loxoom lay ne dañuy tudd le ministre l'intérieur mais c'est le préfet qui est sur le terrain moom am na ñu muy wax ak ñi ko faree kaw comme ñoo xam ne moo leen yilif kenn ku nekk di am situation bi mu koy jox c'est sur la base de ces situations là lay jël décision situation boobu moom moom moo ko vivre man xaw ma ko du ñàkk rendre na compte son ministre de l'intérieur certainement mais gëm naa ne la mu waroon a def moom la def à ce moment précis parce que nag il est bien informé préfet à ce moment précis renseignement day wax ak moom police day wax ak moom gendarmerie day wax ak moom moom la ñuy wax ak moom peut-être mu rendre compte au ministre waaye toll na fu décision di tollee moom moo koy jël parce que nag préfet c'est pas uniquement porter une tenue c'est assumer une responsabilité. yow da nga jàpp ne il a pris parce que je suppose parce que d'abord je le je le connais préfet Samb te bi ma nekkee ak moom il prenait de bonnes décisions. donc yaakaar naa ne moom sur la base des éléments qu'il a il a pris la bonne décision xaw ma nag yan élément la am. président dafa génn euh, au mois d'avril mu ne li fi amoon dootu fi dootu fi am mu mel ni dafay euh, pointer du doigt euh, des fay des faiblesses. Euh, d'ailleurs sax par la suite il eu des mouvements euh, des changements dans la police ya y a eu des changements dans la gendarmerie ñenn ñi li lier le changement même au niveau de la gendarmerie avec la gestion des événements euh, de mars yow en tant que ministre de l'intérieur bi ngay seetaan événement yooyu euh, décelé nga fay yooyu dans la gestion de cette crise la des des failles et des faiblesses. non j'avoue que su ma ko décelé woon lu ma la ko wax su ma ko décelé am na ñu ma koy wax te ñoom laa koy wax parce que j'ai dit j'ai des rapports avec le de l'intérieur qui me permettent de lui dire ce que je pense et j'ai des rapports avec monsieur président la République qui me donc wax dëgg yàlla su ma gisoon yooyu faay du ko wax fii man jàpp naa ne ils ont fait ce qu'ils devaient faire. donc aucune faille. waxuma ne aucune faille. dama ne la su ma amoon faille du ma la ko wax laa la wax fii. loolu la wax de waxuma la faille waxuma la amul faille waxuma la amul faiblesse dama ne la du la ko wax fii su ma ko amoon du ma ko wax d'abord pour des questions de sécurité parce que la sécurité aussi c'est sérieux la du ay caaxaan. la preuve d'ailleurs bi événement yi amee ñu bëri dematuñ dikkatuñ ñu ngi toog te loolu ñoom ñoo ko war a gérer donc la tax préfet bi nga xam ne mooy garant de l'ordre public jël boobu décision moom moo ko xam parce que moo nekkoon sur le terrain aussi am tous les éléments ces éléments là moi je les pas hein. c'est le préfet qui les a il a pris la bonne décision je je li ma xam ci moom parce que nag aussi j'ai travaillé avec lui j'étais avec d'autres préfets et je ñoom ni ñu xamee seen sens de lan nga xalaat ci euh, l'affaire du capitaine Touré euh, radié de la gendarmerie en rapport avec euh, ces événements là. je suppose que xam nga ñoom la ñu nekk ci corps boo xam ne bii bu fekkente ne dara xew na man j'ai j'ai dirigé le ministère de l'intérieur donc su fekkente ne police wala sapeur am na événement yu xew dañuy am commission d'enquête enquête commission d'enquête moo la proposer les les les sanctions. c'est comme ça que ça marche les premières sanctions gis nga ko en tout cas moi j'ai pas vu de rapport qui le concerne lui gisuma ko mais c'est des rapports certainement qui existent rapport boobu moo tax ñu ñu njëkk ko yóbbu aux ñoom yéen peut-être yéenay jaaxle ci loolu rek mais man dans le cadre en tant que ministre de l'intérieur mais raje raje raje nañ beaucoup de raje nañ ay policiers raje nañ ay sapeurs mais du du du radiation yu ñuy def uniquement ci suñu flairu bopp radiation mi ngi baas mais radiation bi dañ ko politiser. koo ko politiser. non on le on le présente comme une victime. Euh, comme un homme de foi qui a refusé. Euh, de servir des desseins non, politiques déjà xam nga vraiment il faut quand même qu'on qu'on en revienne aux choses réelles vous vous êtes journaliste c'est-à-dire que je pense que am affaire du sentimentalisme surtout dans ces corps-là c'est très sérieux parce que ñooñu dañuy yore suñu sécurité. moi j'ai pas accès au rapport mais connaissant ce corps-là connaissant également comment fonctionnent les autres corps jàpp naa ne s'il y a rien de sérieux bu fekkoonte ne amul dara lu ñu koy tuumaal fii ma moi moi qui vous parle j'ai refusé des radiations parce que j'ai pas été convaincu par les motifs waaw par les je l'ai refusé j'ai refusé des radiations mais j'ai accepté également des radiations parce que j'ai jugé que motif yi ñu mu wax pour man soit li li ñu ko étayé doyul donc c'est pas des rapports falafala yi que les gens surtout quand il s'agit de collègues say collègues bu ñu def ci yew rapport mais il faut que mu nekk bu mu defee ci yow rapport ba ñu proposé liggéey am na fu ñu ko teg ah non faut pas essayer de politiser ça c'est même pas bon pour notre pays c'est pas bon pour la sécurité de notre pays parce que léegi tout est sujet à la politique mais c'est ça euh, même euh, le départ du du du du général euh, ñu ngi koy politiser. oui du ñàkk xam nga man moom laa wax dañu nekk dans un contexte où loo def la diligence xaw ma lu tax général bi dem ma je sais pas parce que je suis pas là mais d'abord li ma nangu rek mooy li ma fa jëlee jëlee fa keneen jëlee fa ministre. changer comment dirais-je secrétaire général président de la République ainsi de suite war na ko fa jëlee parce que mooy ki nga xam ne kii ñun ñëpp ñoo ko fal pour que muy def loolu il n'est pas obligé de se il n'est pas il n'a pas l'obligation de s'expliquer sur ça te it xam nga dénkaane ko wóolu dañoo dénk président parce que dañ ko wóolu moom nag mooy am sur la base mooy am élément yu ko doy mu sukkandiku ci ne lii day dem parce que buñ fàtte ne Géraldine président moo ko nommé foofu aussi donc peut-être am na ces raisons moi j'ai pas accès à un dossier boo xam ne boo accédé maanaam sax moo accès lu ma ci wax mais aw ma accès donc xaw ma lu tax mais le président a la prérogative de l'enlever ça peut être lié au dossier ça peut ne pas être lié au dossier le capitaine Touré su fekkente ne am na radiation c'est sûr que c'est sur la base de conclusion de commission d'enquête tey opposition bi euh, ñi ci gën a am solo ñu ngi rassemblé wu au sein du du d yéen ngeen nekk ci seen euh, majorité Benno Bokk Yaakaar. Eh, weesu na ko léegi majorité ah. présidentielle élargie. <laughs> ah bon waaw yaatan la ba mu yaatu. waaw yéen ngeen nekk euh, dans le cadre d'une majorité présidentielle élargie mais vous avez la pression. la quelle pression mayuñ leen dara. ils vous mettent la pression euh, parfois sax ñu ne boo leen moytul doo leen yeggale. yaa loolu lay wax la rek. ah lay wax la rek. Euh, jël Idrissa jël bi ngeen jël Idrissa Seck ngeen doon wax naan non on est pour cent mais mu mel ni euh, da ngeen am à côté un adversaire euh, beaucoup plus redoutable que que que Idrissa Seck. comment comment il est redoutable. ah comment il est plus ah. ci élection lañ koy xamee ci wàllu politique ñun dem gaa yi natt jàmbaar lool nag natt nañ ko troisième di jël di ndaw. am na avenir devant lui kenn du ko werante parce que kenn du gis géej gi di wax di ko jaawalee leneen il a fait de bon progrès il est politique mais il n'est pas seul d'autres pauvres forts élection prochaine élection ñeneen mën nañu fël comme ni mu fëlee xam nga moom élection 2017 la jógee plus fort res ñëw dans le cadre d'une coalition am li mu am c'est bien mais nañ dem beneen élection bu fekkee bëgg na bu ko Sénégalais yi tànnee y pas de problème parce que aussi c'est ça la démocratie cest réew mi il faut nit ñi jàpp ne weesu nañu foo xam ne fii dañ fiy imposer quoi que ce soit ci wàllu élection kenn mënutu fee imposer lenn lu mooy li Sénégalais yi bëgg sénégal yi kuñ bëgg moom la ñuy tànn heure bu échéance bi jotee ñi ngi dëgmal ay élection locale le Sénégalais yi tànn dans leur localité ka ñuy jiital buñ ci jógee dem élection législative président Macky Sall moo fi ne bu demee élection législative moo nekk je veux dire au pouvoir moom li koy intéressé mooy na fexe ba am majorité bu koy mën a permettre mu gouverner et c'est ça et ñun yàlla sant nañ yàlla ba élection mooy mooy joxe le pouvoir et aujourd'hui tout le monde a accès aux élections donc voilà je pense que c'est ça qui est donc Sonko moom terewu leen nelaw man de terewu ma nelaw Mm. waaw te réew maa nelaw ndax maa doon organiser élection présidentielle 2017 2019 fu mu nekk nii président dafa génn ci tournée économique et politique non économique <laughs> politique <laughs> tournée économique la waaye amoon na politique fenn rek la politique yi mooy chez moi waaw économique non la tournée elle est économique et politique. ndax da ngeen di rivaliser dans la mobilisation euh, président dañuy profito di waxat. ay ay nitam. Mm, mm, mm. seen étape bi euh, dañ dafay dañ ko rallonger dañ ko yokku euh, ci li nga xam ne moom mooy tournée bi ndax samedi président mu ngi waroon pare 13h waaye ñu annoncé des des des étapes à Daara et à Linguère ñu ñëw Linguère yow nga mobiliser génn. ak say ñoñ euh, mu nekk sax seen première reprise de contact politique ah, publique si politique publique si politiquement loolu keroog samedi moom moo nekkoon bien que da ngeen di am de yéen a ngi déggante mais je veux dire ngeen retrouver waat politiquement et publiquement nga jël kàddu ne ko jolof a nga nii waaye mu mel ni nag jolof daa xar Jolof daa tàmbalee non d' abord d' abord euh, wax dëgg yàlla euh, may mën a ñun d' abord dañuy sant yàlla. Hmm. ndax département de Linguère xam nga tournée économique bii économique la président de la République man dama jàpp sax que dafa war di génn souvent parce que tamit loolu mooy rôle am xam nga booy jiitee ay nit baax na nga di leen nemmeeku di xam surtout fii jamono ji tool nga xam ne di waxtaan ak ñoom waaw. te heureusement il aime le contact man ànd naa ak moom ci tournée yu mel nii dama ko yërëm. Parce que je, je, je me demande même d'ailleurs à quel moment il dort. Moi, je me quel moment il dort. Peut-être que son médecin là, je pense qu'il a war na xool loolu. Parce que damay koy gis rythme bi muy demee gis nga rythme bi mu demee semaine bi ak li ko jiitu au niveau de du du salon donc président war na di mën a génn di dem lii nii mu ngi ko waajal boobu mantite à l'intérieur donc ça fait plus d'un an mbas mi moo taxoon ñu arrêté ko moo taxoon boobu on n'avait pas programmé les visites de Kaffrine et compagnie boobu la njëkkoon a programme donc mu def ko être au contact de les population dem di inaugurer dem di poser de premiers pierres loolu lan lan moo ci loolu moo ci dul économique tournée bi c'est essentiellement économique d'ailleurs la preuve d'ailleurs la tournée n'a réglé aucun problème politique parce que parce que xuloo yeeg euh, rivalité yi dafa gën a feeñ waaye problème économique bi taxoon mu jóg moom réglé na parce que loolu moo doon sensu tournée bi politique bi nag maintenant xam nga ne wax dëgg yàlla bu ñu waxee dëgg rek bu fekkee ne moom pour problème politique la du Fuuta lay dem élection yi passé ses meilleurs résultats c'est Matam Kanel daan la région de Matam ensuite la région de Saint euh, ensuite le département de Podor waaye xam donc oh, donc volet mobilisation moom mënuñ ko téye ko téye mais mais mais tamit président Macky Sall. mënuñu ko téye le président de la République. mais wax <laughs> déglu président de la République mënut a ñëw. allez euh, man je ne suis pas en train de. Ah, caractériser la caractériser une tournée économique. c'est une <laughs> tournée économique tournée économique la président de la République bu demee di seeti fu ñu ko bëggee dañ koy teeru. waaw non non man loolu sax du problème ci man il est c' est, c' est légitime ah oui donc euh, c' est, ma ne pour man sax man sax man man pour man sax tout cas pour man c' est pas mais mais boo xoolee la mu fa doon def nañu wax c'est-à-dire au delà de au delà de l' aspect où il y a peut de monde nga xool lan la fa doon def. oui y' a eu y' a de poses de non beaucoup man aujourd'hui on est en de nous faire. la la la la la la la la ligne euh, njum njum njum. hier. man mais aujourd'hui qui de la légitimité ou de la légalité. non non du loolu ñaar ko débattre ñi parce que ñaar yëpp am c'est légitime c'est légal. c'est le président la république. ma ne président def na arrêt à Linguère. bi muy wàññeeku. waaw bi muy wàññeeku bi muy ñibbi. bi muy ñibbi si waaw. voilà def na arrêt à Linguère nga génn mu mel ni da nga sele seen grande retrouvaille politique encore une fois. Euh, on n'a pas eu. le président et mois de rupture politique vraiment aussi bu lay expliquer nag di la jox ay firnde da ngay nangu man d'abord vous avez di que on s'est vu au mois de mars je vous ai dit on a échangé avant le mois de mars au mois de mars on s'est vu dans son bureau au palais et je ne suis pas parti en catimini bi ma fay dem ay nit gis nañu ma dama toog ak moom ñu wax ci lu bari pendant une heure de temps récemment quand il y a eu l'incendie de au niveau de l'hôpital Magatte Lô on s'est au téléphone je lui ai les familles avec les Jolof. mais mais mais mais moi je dis pas que. da ngeen am rupture dama euh, ensemble sur la scène. publique politique. oui parce que amutul. keroog ca Linguère. depuis bi nga génnee ci gouvernement bi c'est la première fois. exact ngeen teewaat te yow nga utiliser tribune bi def ko genre feddali coloré. non yow yaa ko tur qualifié. feddali parce que coloré déggoo ma ne la dama lay jox ñaari éléments yu wane ne coloré musa fa musa musa fecceeku nee la avant loolu man président Macky Sall wax nañu ma jël famille yi nga xam ne yii ñoo amoon problème mu ci ci ci incendie bi ñëw indi leen ba ci moom il ah, y avait au moins trente personnes là-bas nous on était une délégation de vingt cinq personnes. waaw mais sauf que bu sa euh, sa accueil boobu. waaw mais bàyyi bàyyi ba pare da nga poser un acte politique. bien sûr que un politique. c'était un acte politique mais bien sûr mais nan lay wax ok le président de la République imaginez vous président ñëwoon fa fekk fa kenn lu ngeen di wax kon. al dafa mer. déedéet waaw ba loolu c'est une possibilité mais ñun dañuy d'abord dañuy sant yàlla parce que président de la République nii waa Fouta waa Matam Podor ñoom ñëpp. lëpp at ñu ngi préparé tout ça président la République ñun man ma wax ak président la République mu nangoo ñëw bu tournée bi jeexee ñun le 8 la ñu am information que président dana ñëw le 9 mu def conseil des ministres confirmé ko donc on a du 9 au 19 nous avions 10 jours mu ne day jaar Linguère jaar Daara wax dëgg yàlla nga may ma tuuti occasion ma profiter féliciter le Jolof parce que keroog ñi fa ñëwoon. muy ñëw mu ñëw Linguère comme ñëw Daara parce que fenn fu ci nekk mobiliser nañ ko gis nga boo déggoon ne ñi ñaar ñëpp dañoon dogoon ci benn place mobiliser président dana dana dana gis loo xam ne dootu ko xalaat a gis déjà mais Daara ak Linguère donc taxaw plus toutes les communes environnantes mobiliser en deux points sous l'initiative de qui tous les responsables politiques de Benno Bokk Yaakaar les maires les ministres parce que nous avons deux ministres nous avons les députés kenn ku ci nekk taxaw les responsables politiques ñëpp taxaw pour gàtt lu président Macky Sall kenn ku ci nekk def ci li nga am j'étais là j'étais acteur moi j'étais mais xam nga dafa am des actes politiques yoo xam ne boo ko posé mënul anodin ci contexte bi ñu nekk. comme lan. président de la République un sa sa sa étape bi c'était pas prévu. ñu intégré non c'était pas prévu jusqu'au 8. voilà président la République dafa ñëw. nga jàppandu ci oto bi comme un homme politique bu reconnaître le leadership de l'homme ne ko a ngi nii wan ko ñi ko accueillir xaaral rek ah. muy benn acte deuxième acte politique yéen euh, au niveau euh, du département mu mel ne dafa am fissure Samba Ndiobène Ka dafa mobiliser euh, ci côté am yow nga mobiliser sa côté Djibi Ndiaye mobiliser ci côté parce que à l'entrée de Linguère Djibi Ndiaye moom moo fa accueillir le président de la République mu mel ni y lecture politique à faire. Non, non, non, de tout cela non yaa ngi def erreur parce que xam naa nekkuloo foofu. ah nekkuloo foofu maa ngi woon foofu. déedéet déglu ma expliqué la rek moo tax ma ma expliqué la dire que. maa ngi taxaw ci oto tiim la ngay wax. président de la République donc ne di fàtte nekkuma fa. donc peut gis loolu lépp. wala boog lecture boobu nga bëggoon a lire ngay dem. xam nga dictée préparée yàgg na am ci. <laughs> c'est pas une dictée préparée. déglu ma wax la rek ce qui s'est passé c'est très euh, président moo wax ni dafay taxaw Linguère taxaw Daara c'est pas la mm-hmm. première fois. Mm-hmm. man je le maire de Linguère j'habite Linguère. Samba Ndiobène Samba Ndiobène Ta Ali Sala Diop ils sont Daara les députés. Anie Mbengue euh, euh, comment Mame Bounama Sall Ndeye Fatou Guissé habite Dara le député Yoro Sow habite Warxoox Warxoox c'est 14 kilomètres de Linguère donc on s'organise autour de fi ñu dëkk ak nos différents militants pour organiser donc le tout Djibi Ndiaye l'habite la commune foofu nga wax noonu mooy seen kër à l'entrée de donc c'est normal au-delà de ça combien de combien de responsables politiques maires vous avez vu foofu noonu ci yoon bi tous les responsables kenn ku nekk avec ses pancartes avec ses t-shirts accueillir le président de la République c'est ça que vous avez vu lenn rek moo ci particulier ñun au niveau de Linguère on a mobilisé avec les Jolof Jolof ndax bu gën a daara dañoo importé. waxuma daara non je parle de Linguère au niveau de Linguère je parle de Linguère parce que daara wax dëgg yàlla xaw sax naka lay mobiliser mais je sais qu'ils ont mobilisé dama ne man parce que man j'ai géré la mobilisation de Linguère. non boo naan jaa daara da ngeen mobiliser avec les Jolof Jolof Linguère euh, Linguère da ngeen mobiliser dafa mel ni. feneen. dañoo mobiliser non non fa may wax fa may wax du loolu. parce que quand même on a entendu avant président di ñëw. coow li am dans les différentes mobilisations donc je parle pas dara parce que boobu taxul ma dama ne la man li ma amal solo mooy la mobilisation que j'ai organisée on l'a fait à Linguère avec les Jolof Jolof à Daara aussi on a fait la mobilisation avec les Jolof Jolof c'est clair net et précis donc ña Daara du ñu ay militants importés. ah je suis pas sûr que moi j'ai pas été à Daara mais je sais que ñu bari ña ci xam duñu importé parce mais Daara nag moo gën a mobiliser Linguère de. Daara moo ëpp Linguère est que xam nga Daara moom fi ne en terme de population Daara rien que la commune Daara fait presque trois fois Linguère en terme de population. mais xam nga bu njëkk ba politiquement euh, Daara Daara sous la coupe de Linguère. ba léegi c' différent cest dire que encore une fois. xam Daara dafa commencé. di di affirmer li nga mooy leadership politique am non c'est pas avéré c'est pas parce que y a des ministres que c'est ça le leadership politique non non non aujourd'hui c'est vrai nous avons deux ministres à Dahra l'un c'est le ministre de de de de Rewmi l'autre c'est le ministre de la paire c'est des c'est des c'est des militants président moo am possibilité nommer ku ko na tout simplement. y' a mais yow euh, nomination wu Samba Ndiobène Ka ak évolution bi muy def euh, est-ce que tamit parce que dafa mel ni. euh, jusqu'à récemment vous étiez le patron incontesté yow yaa rek yaa fa nekkoon ministre euh, ñoom Samba Ndiobène yëpp léegi ñoom rek ñoo fa nekk ministre ñoom Samba Ndiobène yëpp dañ doon ñëw. voilà ils étaient très ñu ñu ñu ñu nommé Samba Ndiobène xam nga Macky nag dafa am méthode bu tegee ci kaw. dalay lay wutal ku la da day wut transition da wut ku mu ku mu préparé donc yow euh, ci remaniement euh, bi ñu génn ñu indil la Samba Ndiobène on disait à l'époque que vous n'aviez pas apprécié benn deuxième remaniement bi Samba Ndiobène jël du galon Samba Ndiobène jël du galon yor ministère bu am solo tey contexte bi tey mu mel ni Samba Ndiobène dafa commencé di la xaw a xatal tuuti euh, ci li nga xam ne moom mooy wàllu département sur le plan politique moom xataluma mais c'est normal. vous vous entendez politiquement. non on a des divergences cest à xam nga nit du gis truc ngay wax ni parce que xam nga li moytu kilifa da ngay moytu wax ni ngay wax sax duñ la gëm su ma la waxee ne on est en parfaite entente je ne dis la vérité mais c'est pas ça qui important. mais la mooy seen i divergence. oui mais divergence c'est uniquement politique c'est normal. divergence politique la rek. pourtant au début. Euh, ah non non non yow quand même fekkee nga. bu la wax au début vous étiez là en 2013 2014. xam nga ne amut. aussi boo bëggee ñu tegale audio yi donc ça dit toujours comme ça mais important ça dit tant que c'est politique c'est pas grave amul beneen truc parce que yàlla def na peut-être avant politique bi sax daawun daawun tase feneen sauf que quand wax dëgg yàlla quoi et ça je vous le dis ah Samba c'est mon jeune frère je le dis pas par démagogie parce que nos pères étaient ensemble sama papa ak papaam ñu doon ànd ñu politique PS politique URD dernière rencontre que j'ai eue avec avec son chez son, devant son père, paix à Parce que gagné le Je me rappelle comme aujourd'hui ce qu'il lui a dit. Qui ce mag là jàppee ko ni mag mu jàppee la ni rakk jàppal ne am nañu lu wër ñoo xam ne ñi buggul ngeen juboo am na ñu ko wër ñoo xam ne bëggul ngeen juboo parce que ñoom ñaar ci seen ñàkk juboo rek la ñuy dund et ça je lui rappelé ça keroog bi papaam gaañoo le reste là c'est politique donc on n'a pas problème mais il a droit c'est un jeune il a le droit. dafa wàcc li ko waajuram wax. non non non du tout le reste c'est politique la rek tout simplement non je ne. pas mais politique nu mu lay jaxasee ak sa jeune frère. non jaxase wu ma jaxase jaxase du jaxase tey jii su ma ko soxloon léegi dama koy woo. waaw mais déggootu leen. y a une rivalité. rivalité loolu du ñàkk a déggoo di. Ah. rivalité ak ñàkk a déggoo di. waaw mais rival rivalité bi mooy. xam nga euh, xam nga Samba Ndiobène xëccewuñu dara. parce que en vérité lan la ñuy xëccoo c' est pas un poste qu'on donne les postes yu ñuy donné par exemple si c' est des postes mi c' est le président qui le donne si c' des postes politiques aujourd'hui on n'est pas dans la même commune donc xëccoowuñu maire xëccoowuñu président conseil départemental xëccoowuñu kuy coordonné parti bi ah moom dafa mel ni il dafa bëgg a nekk la patron incontesté. non waaw mais déedéet da ngay wax patron incontesté moom xam nga léegi. Sénégal dafa bëgg a nekk ndegam léegi ndegam président non am na sañ-sañ sax bëgg ko. statut ba nga amoon dafa mel ni loolu la bëgg. ah waaw mais c'est normal c'est politique nit day am ambition boo ci nekkee da nga am ambition mais y a pas problème. Jibi Ndiaye nag moom. waaw Jibi Ndiaye xam nga Jibi Ndiaye sa peut-être sax différent Jibi Ndiaye Jim Ndiaye sama bàjjana ko jur benn sama nijaay ko jur lu ma neex laa koy wax on a aucun problème. ah si. non aucun problème Jibi Ndiaye daf ne bëgg na mairie Linguère mais am na ci droit wuyu le problème mairie Linguère man moom ma ko bi ma ko soxlaa dama ko wuti def ci li ci war ba jot bu ko bëggee na ko wuti bu ko jarlee mu def li ci war ba jot ci politique la rek mais on a aucun problème Jibi Ndiaye benn problème amuñ ko nee naa la sama nijaay ko jur sama bàjjen ko jur lu ma neex laa koy wax Jibi Ndiaye non seulement sa mbokk la. déglu ma dugal nga sa loxo euh, ci li nga xam ne euh, moom mooy ascension politique am ak institutionnel am tey dafa taxaw fas yéene jàmmarloo ak yow. amul problème peut-être que yow da nga ko gis comme une trahison. déedéet yaa ko wax. déggoo ma ne la déggoo li ma la expliqué nee naa la Djibi c'est mon cousin. tey commencé moom commencé na yëngu foofu de. mais amul problème la yëngatu c'est normal. ku bëgg dara yëngatu man bi ma bëggee damaa yëngatu. waa mais Aly Ngouille xam nga nga nekkoon ci commune nekk le maître le patron incontesté. ba léegi nekk ci département <laughs> amul kenn ku la contesté. nga jékki-jékki ay xale yoo xam ne. yaa yow yow yow xale jibee xale. Eh, noonu lañ ko mun a waxee. déedéet defal nag jibi mag na ma. moomu mag nga bëgg ko def xale. waaw mais ñoo xam ne bu buñ leen di woowee xale. bu dañ lay woowee grand parce que yaa leen féete ci kaw sàmm bu la neexee nga woowee xale di di di jàpp sa si. c'est normal bu ko yëngal mënu laa neex. non encore une fois toi même affaire ay ay Maymuna yow xam nga bu baax li ngay wax am na ci loo xam ne da ngaa bëgg waxtaan rek moo tax ngay wax mais du ma ci tontu parce que xam nga loo xam ne lii peut-être ñi ñuy déglu xam nañ ko xamuñ ko donc moo tax du ma ci sori. Mm. vraiment je quand on est en politique les gens sont libres d'avoir des ambitions aujourd'hui vraiment bu fekkee ne élection locale la ñu dem te ñu bokk parti wala ñu bokk coalition les ambitions peuvent être exprimées c'est normal mais arrivera un moment où les coalitions ou les partis trancheront au-delà de ce moment les populations trancheront par un vote donc y' de problème cest dire que xam nga boo xoolee Linguère li fi président def loolu d'ailleurs eh, loolu mooy loolu mooy le charme de Linguère ah l'étape de Linguère l'étape de Linguère président ñëw na fi amut buuxante amut nervi amut sànnante xeer amut brassard rouge avec tout le monde qui avait là-bas yàlla suuturaal nañu na rivalité politique. mais c' normal déggu li may expliqué rivalité politique mais déggu ma ne on l'a fait amul problème c'est-à-dire que fii fii fii fii waa kër ji bi romb woon ñii di ma tàccu ñii di ma yuuxu c'est normal parce que ñenn ñi samay doom bàjjale leen samay doom nijaay leen c'est normal c'est pas de problème pour ce cas-là c'est pas un problème parce que nee la xeex amu fa c'est pourtant gis nga moom ba fa toll ne woon ni mu toll yaa ngi foon ci biir comme comme comme ni nga waxee gisoo fa benn xeex gisoo fa benn kenn gaañuwu fa kenn accidenté wu fa kenn def fa dara et pourtant y avait tellement de monde. ragaloo perte mairie Linguère. ndax buuxante bi na de. mais oui moom moo ko maire Linguère ba Linguère ko moom ñoo koy jox ko leen soob ni ma ko bëggee woon laaj ko liggéey ko dem bilan def billan jox leen ko man bi ma bi ma falee bi cinq ans yi matee damaa woo waa Linguère def bilan le 30 juillet 30 juin bii lay def sept ans biñ ma falee le 30 juin donc ma wootewaat waa Linguère le trois juillet ne leen ñëw leen ma xool li ngeen ma dénkoon ni ma ci liggéey ngeen wax ma li ngeen ci xalaat je fin un bilan d'un septennat qui devait être quinquennat Linguère mooy apprécier ëllëg ku muy fal parce que nag on est en démocratie xamaguma sax ku muy fal mën a doon man mën a doon jibi mën a doon keneen mais l' mooy nañ ko def rek ci defin bu rafet dans tous les cas de figure parce que nag wax dëgg yàlla Linguère moom mënuñ ko séddoo. mais merewoo naan moom mooy jàppale Jibi Ndiaye Jibi di la contesté. no non je pense pas je pense pas que je pense pas ça je pense pas que ça soit parce que wóoruma parce que gisuma ko aussi xam nga man je préfère je, je je préfère pas spéculer je préfère dire des choses que je connais jàpp politique ku mu neex jàppale ku la neex. politique comme neex jàppale ku la neex am na ñu fi nekkoon di politique ëppoon ma doole foofu ma fexe bañ jógee fi donc amul benn problème loolu loolu tant que ça reste dans le cadre politique c'est pas grave. ñu termine par euh, l'agriculteur euh, ñenn ñi di naan ay agriculteur du dimanche ngeen au début ba ngay démarrer dañ jàppoon ne vous étiez agriculteur du dimanche mais mu mel ni. Euh, da cee gën a sax mais balaa ñu ñëw ci affaire du agriculture bi euh, ci sa toolu Linguère bi euh, da fa yor ñaari ñaari oryx mu mel ni Abdou Karim Sall. ñett benn bi jur na. waaw mais dañ la fa joxoon ñaari olix mu mel ni Abdou Karim Sall du Abdou Karim Sall rek la ñu waroon joxoñ baaraam ci affaire. gazette eh, man man ku ma joxoñ baaraam aussi amul problème man ma ko sax di parce que olix yi xam nga yi d'abord. ñi koy wax di kaas xanaa ñi ñu ko jox ñoo ñu ko gën a ñoo ñu gën a yëwan dañu ko orixi ah, ñi leen ñi leen ko jox euh, ils sont sous tutelle la déedéet wax ma loolu je dis ñi ko indi Sénégal laa wax hmm. xam nga orixi nekkutoon Sénégal ah. dañ ko may Sénégal pour ñu repeupler le ferlo ah. ferlo gi ma bokk nekk des espèces protégées voilà hmm. donc ñoom dem nañ ba jàpp ne mëntu ñoo nekk foofu pour des problèmes de consanguinité ñu commencé ko di ko génne di ko jut ay privé di leen ko jox Abdou Karim Sall joxuma ko man contrat bi may signé d' abord c' était avec avec Mame Thierno. le directeur des parcs nationaux. déedéet avec d' abord Mame Thierno à l' époque ministre de l' environnement moo fa nekkoon donc Abdou Karim Sall daf ko fekk man am naa. réserve ma bëgg nag ni ni ni yeneen xale yi yeneen dëkk yi dem seeti ay orix ma bëgg xale yi jolof yi mën a génn bañ a sori dem seeti orix loolu ma ci dugal du leneen. donc sama sama sama ferme bi am na Oryx am na Elan di kap am na Autriche yoo xam ne dama ko jënd Oryx yi rek la jëndul te Oryx bi ñu fi ñëwee contrat lañ am maa koy yore maa koy faj. su juree ñoom ñu moom lii. moom mais mais xam nga li déranger nit ñi. dañuy ñam mooy des espaces euh, li déranger opinion bi ak les environnementalistes mooy des espèces yoo xam ne dañ leen protéger. boo boo loolu dafa leen ah. dafa leen dindi wàññi euh, ñu jël ko te ñi ko am rek mooy ñi nekk ci nguur bi. mu mel ni daal euh, pour leur plaisir personnel les les les hommes du pouvoir. voilà dañuy dem ci suñu parcs nationaux yi di jël. ah dimanche nga woo say xarit ngeen toog di seetaan. non non yaa ngi jaawale du noonu du il y a quand même beaucoup de privés. qui ont bénéficié de ça ñi ñi ci am yëpp. ci système bi lañ nekk. mais ou bien mais mais daa fekk ñu mën ko yore. c'est de grands hommes d'affaires c'est c'est des marabouts. Euh, c'est des ministres. dañ ko mën a yore. ñooñu ñooñu rek ci am. dañ ko mën a yore. man de aw ma ko yor parce que fii nga dëkk Dakar ñaari kër gi nga xam ne mënoo ko yor ko yor parce que am nañ espace. man am naa espace ma yóbbu ko Joal. Ah, ah laajal donc dans ce cas laajal boo am fu am Oryx yëpp liste bi nit la ñoo xam ne homme d'affaires la ci boppam am naa ci man maa ko wut te li tax mu wut ko loolu la donc maa ngi sant yàlla oryx bi am na am na am na bébé oryx déjà vraiment y a pas problème jënd naa couple élan ña nga ko élan du cap ñaan yàlla mu pro multiplier wu pour que nag sama waa kër nag wax dëgg yàlla ñoom it man bu leen neexee élèves yeeg école yi bu ñu jàngee oryx man fa doxantu gis ko bu ñu jàngee élan du cap man fa doxantu gis ko autriche nga xam ne foofu sama tool bi fa mu nekk ba ma fay bay nekk xale boobu autriche sauvage bi amoon na fa tey amatu fa yóbbu na a fa Autriche doon sama sago Autriche nekk fay nen di jur waa Jolof di ko mën a gis te ñu sori tey bari na ci ñoo xam ne ñi mosuñoo gis Autriche ndax ba fa Autriche disparaître boobu fekk fekk na boobu juddooguñu donc loolu vraiment moi je suis pas un agriculteur du dimanche ma dama yaru non loolu laa ma ne ma ne ma ne ba ngay doog a démarrer kañ laa démarrer euh, mbiru tool yeeg agriculture yi Euh, non xam nga souvent boo nekkee au gouvernement. moom laa la wax moo tax ma ne man kañ laa démarré yooyu. Euh, dañuy jàpp ne xëy na euh, voilà. man c'est pas mon cas la. man c'est pas mon cas mais aujourd'hui à da nga commencé nekk vraiment. un fournisseur wu ma nekk. c'est pas mon cas man d'abord damaa yaru ci mbay man dama daan xam nga gati xam nga lu ñuy wax gati man dama daan gati yi. ah gëti. gati gati maanaam dem dem dem dëkk ca tool ya. no nawet fa. fii may bay ren dama fa daan gati fii may bay nii Linguère di fa bay tamaate ak leneen dama fa daan gati dama fa daan toog ñetti weer ci vacance yi ñu defal ñu ko suñuy néeg ñuy lekk suñuy ceebu keccax léeg sama yaay yenu añ depuis Linguère indil ñu ko fii laa def samay tool xam nga kañ laa commencé 2004. laa fa def agriculture bi ñuy wax ni culture maraîchère agriculture moderne di fa def ay pondeuse booba Linguère ñu ci bari xamuñ culture maraîchère parce que daanañ ko def culture maraîchère Linguère avant SONES di ñëw avant SDE di ñëw bi SDE ñëwee ba facture yu cher parce que Linguère je me rappelle bi nekkee xale lépp ay jardin la woon ba facture yu lañ ko ba ndax mënatuñ ko woon a fay parce que li ñu fa ëpp ay fonctionnaire lay woon donc nit ñi bàyyi woon mbayam lu ñuy wax mooy culture maraîchère 2004 laa ko commencé bu 2004 j' étais pas dans le gouvernement j' étais à la, de la banque de l'habitat sax démarré de en 2004 fi ma def sama nag yi ak sama fas yi actuellement nii xaw ma ndax yor nga image ou pas fii nii fii may bay fii mooy kilim fii 2004 laa ko commencé atam at bi fi njéeréer yi jaaree yàq lépp laa dem ak chef de village bi ñu daal di ko commencé je suis la dans le gouvernement en 2012 donc huit ans après fii nii boo ko boolee mook sama ñaari ferme yi lu mat ñeent fukki borom kër ak juróom-ñeent ñu ngi koy liggéey ñëpp fa lañ dëkk. 40 Sénégalais. 49 précisément ñoo fay liggéey. képp ci village environnant yi fii nii dama fay def euh, nu mu tuddati fii la sama ferme bi ne bii je l'ai acheté en 2009 d'un ancien fonctionnaire à Linguère ça c'est de Linguère c'est 6 hectares. di fa bay ñax di fa defar sumay nag ak samay bëy ak samay xar ak sumay fas di fa commencé defar fromage made in Linguère te jàppit ne lu mel nii mën nañ koo def ci Linguère pour fexe ba tey problème bi ñu am ci ndawalu Sénégal mu réglé wu parce que Sénégal kenn ku ne xam ne dañuy importe yàpp du tabaski rek la ñuy importer xar dañuy importer sax yàpp bi ñuy lekk et pourtant nous nous avons les terres donc lii gouvernement boolewuma ci wala agriculture du dimanche lii dama ko bëgg dama koy def. tey tey c'est aussi c'est une activité économique ah. tey ban poids la la activité bi am dans la activité économique à Linguère en général. bii nii mais c'est notre principale activité jolof jolof bu ne sàmm la. non waxuma euh, sàmm je veux dire tey euh, nan ngay fournir. Euh, Linguère. man mii ak ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, jigéen non moi ce que je fais ici non cest dire que lii nii par exemple ci su ma jëlee suma jur gi am na ay fas donc am na benn ara donc am na ay étalon kon day également fii bu toog lii ñaar ñaari étalon benn président Macky Sall laa ko mayoon bu léegi jël see góob am na étalon am na également ci tool bi ay ñu ngi bay ay tomate ak ñoom seen mais tomate bi ñuy bay c'est généralement pour le marché local daaw j'ai récolté quand même beaucoup de mais je le vends dans le marché local tout au plus à Touba. ñaata lay rapporter. Ah, activité bi ah ah danañ di xaalis. mais ñaata lay ah, rapporter dama ko wax. Ah, danañ indi xaalis xaalis bi mu indi déclaré naa ko dama koy déclaré. à l'OFNAC non pas à l'OFNAC impôt. aux impôts oui. mais à peu près nañu am. une mais encouragé ñeneen. nee na la indi na xaalis boobu du indi xaalis man man du indi xaalis du ma ko def damay dem di leb di ci dugal. dem di leb banque di ci dugal dem di jël sama alal di jaay di def ci investissement defuma ko pour le plaisir parce que nekkuma fa tous les jours. fu may employé une quarantaine de personnes kay xanaa du bëri ndi xaalis la. alors ma terminer par euh, une question Aly Ngouille euh, souvent bu ñuy wax waxu pétrole bi dañu lay incriminer yow. Aliou Sall ak président Macky Macky Sall te barewul loo yëy yàbbi ci dossier boobu mu mel ni dossier la boo xam ne tamit muy fii ak 5 ans muy fii ak 6 ans euh, dossier la boo xam ne dina ci dellu la moo tax nga def lu choix euh, de ne pas raxas sa der expliqué wu. amul dara lu ma ci raxas sama der la ma ci war a def def naa ko la ma ci war a bind bind naa la nga ci war a def c'est-à-dire. da ngay wax dossier Petro-Tim. waaw. wax naa ci di xanaa dama cee waxut bu mujj bi rek waaye di bul fàtte waxoon naa ci ca ca wax ja bees ba muy tàmbali. dossier Petro-Tim président Macky Sall dafa ñëw ci nguur gi fekk président Macky Ablaye Wade signé ko président Ablaye wat non seulement vous avez vu le contrat de toute façon le contrat Karim l'a signé après négociation avec les services Ablaye Wade président Ablaye Wade l'a contresigné entériné ko Puis président Macky même le décret était déjà signé mais malheureusement il n'était pas numéroté parce que c'est comme ça le code pétrolier bi ma ñëwee ñun tout ce qu'on a fait c'est refaire faire le contrat le décret par le président Macky Sall il y a pas de problème on l'assume Moi, je ne suis pas du genre à dire. Vous assumez tout ce qui a été li ñu ci jàpp parce que j'ai dit le contrat la xam nga léegi xam nga ñiy wax rek dañuy wax lu bëri lu ñu xamul. d'abord lii c'est un contrat de recherche et de partage. dans ce pétrole là à l'arrivée Sénégal moo ci ëppale ki ci ki ki koy génne loolu mooy loolu mooy contrat bi man dès le départ laa ne leen Karim Wade moo négocié contrat mais je considère qu'il a bien négocié pour le Sénégal. je ah l'ai bon? dit c'est pas la bonne demal ci archive yi da nga ko fekk foofu j'ai dit Karim Wade a négocié un bon contrat pour le Sénégal parce que loolu mooy réalité c'est pas la première fois ma ko wax quoi wax naa ko bi ma nekkee au gouvernement donc man la ma ca signé je l'assume yàggaloo ëllëg mu rattrapé la. bu ma rattrapé wala problème je l' assume et je bu ma rattrapé maa la wax loolu mais que les gens n'oublient pas que c' est avec ce pays pétrolier waa ji ak ñoo jig. Franck Timis waaw ñaata nit ñoo fi def gas ba sonn gisuñu dara Franck Timis dañoo jig ñun loolu mooy réalité. <laughs> waaye tamit enrichir na ci suñu kaw. mais pourquoi pas parce qu'il a pris un risque fii nga nekk fii da nga koy def pour perte. risque bi nga jël fii pour nekk risque bi nga nekk fii des fois ba jamono méttee ngay bëgg a làqatu wala wax woote ndimbal te nga fàtte loolu loolu fi mu ne nii pourquoi nga def ko c'est pour perdre de l'argent. waaw d'accord. ah voilà waaye waaye Franck Timis bu dugalee dërëm. mais mais parce que c'est le c'est le métier c'est un risque c'est le métier qui est comme ça. ñun ñi ko moom mais ana ana ana total mais déggoo ma ne la ñun ñi ko moom. lii lii ànd ak jamono parce que tamit wax dëgg yàlla tamit période bu leen fàtte ne période bu ko Karim Wade di loolu c'était en 2011 il n'y avait pas 2011 ou début 2012 il n'y avait pas encore de goutte de pétrole trouvée au Sénégal tey la Sénégal nekk pays pétrolier donc dem nañ jàng nañ am na peut-être rectification yoo xam ne dañ ko def mais avant c'était ça et c'était bien fait maintenant lui il a pris un risque mais d'autres ont pris des risques ils n'ont rien gagné ana Total actuellement ak seen coow ñu fi amoon ils ont fait un puits, ils n'ont mais ñi ñaan yàlla ñu trouvé man loolu laa bëgg total ak keneen parce que nag c'est des risques qu'ils prennent un puits pétrolier def ko c'est de l'argent donc y a pas de problème à ce niveau dans le domaine de, de, des mines c'est la même chose vous avez de toujours à l'introduction d'ArcelorMittal ArcelorMittal ñun bi ñuy ñëw xam nga lu ñu fi fekk un contentieux ArcelorMittal président Macky Sall moo doon premier ministre en 2010 en 2007 bi ñuy signé décret bi ñuy signé bi président Wade di signé ArcelorMittal président Macky Sall yëg ko woon sax te moo doon premier ministre man bi may ñëw di def passation de service ak Ablaye Balde ministre Ablaye Balde dafa ne ma kees gee dossier bi ci nekk mooy dossier Kumba ressource ma ne ko lu xew ci Kumba mu ne dañ ñëw condamné ñu war a fay. at mu nekk 7 milliards et demi fii ak 5 ans ñu war ko commencé 2012. kon période boobu Macky Sall di ñëw au pouvoir lan daan am ci mine moom dañu dañ ko daan fayee dañ ko dañ daa wut luñ ci dolli parce que daa wuñ ci am 7 milliards 5 wut luñ ci dolli pour fay Kumba ñu am dossier ArcelorMittal yóbbu ko tribunal ñu commencé ñëw di waxtaan buy ñëw di waxtaan xam nga lu ñu ma proposé woonam mënutuñ def lañ bëggoon mënutuñ def lañ engagé woon mënutuñ def raay mënutuñ def nangam ma ne leen lan ngeen bëgg a def ñu ne ma dañoo bëggoon fer bi ñu koy tibb di ko def ci camion jëlee ko Kédougou di ko indi Dakar may leen yéen da ngeen maa yab réunion ba foofu laa ko arrêté ñu bàyyi épisode boobu ñuy négocier ak ñoom di négocier ak ñoom bañ fay ñu soixante quinze milliards kon pétrole kon fer boobu ñu doon ñàkk trent 37 milliards 7 euh, 7,5 milliards par par en tout cas par 37 euh, milliards 5 je ñu doon ñàkk par am nañ ci 75 milliards. Mhm, mais euh, dossier ba. boo leen teewul woon boo nga loolu yooyu yi wax rek. am nga déglu xam nga déglu ñii lay wax rek. négociation la gis nga négociation la on a négocié. aujourd'hui benn mu fer génnagul Sénégal delloon nañu suñu miin lu ñu neex def ci. d'accord. waaw mais da ngeen teel a signé reddition. waaw mais xam nga teel a signé yow yaa koy wax. parce que déglu xam nga dégg ma ne la ñun période boobu. ñëw ngi Sénégal jàppoon na foo xam ne. yaa mënoon ngeen am lu ci ëpp. ma ne eh, loolu lépp xam naa ci lu bari loo xam ne nii en tout cas koy wax dama ne la daal li am solo mooy jëluñ ci benn perduñ ci benn gramme de fer ba tey ba sànq au moins hémorragie bi nga xam ne bii tegoon nañu ko ñu koy fay kumba arrêté nañu ko jëlaat nañ suñu miin lu ñu neex def ci. tey loolu bokk na xaalis boobu bokk na ci li ñu tax ñu def le parc industriel de Diamniadio ak leneen te tey ay plus de mille personnes ñu ngi koy liggéey c'est ça la réalité. merci beaucoup Ale. jërëjëf. candidat nga 2024. pareegu ma bi. ah da ngay merci beaucoup. candidat nga 2024. 2024 ñëwul naa dund ba yegg ba yegg fa. fi doon nii léegi nii mairie yi ñuy wax sax nii li may ñaan yàlla mooy naa dund ba fekkee ko. man loolu lay ñaan je ne suis pas pressé. du sa ambition pour le Sénégal elle reste intacte. luy sama ambition pour le Sénégal dama la ko wax. <laughs> wax la ko di. am nga ambition pour le Sénégal. yaa ma ko wutal. dama lay laaj. wax ma loo ma yéene pour Sénégal. nee nga réew mi li ñu ci war a am kenn mënu la koo teree am. mais bien sûr c'est parce que dama ne la je crois au destin. donc am nga am li li ñu ci war a am. li ñu ci war a am mooy xam nga war nga wax mooy je crois au destin. je suis un bon musulman. donc pour le moment amuloo ambition. yaa ngi au côté du président Macky Sall. bien sûr je suis avec ah. président Macky Sall je ne triche pas. moom ci boppam moo la pata xam ne su ma su ma su ma gëmut lu ma def lu ma def dama ko gëm wax dëgg yàlla moi je ne peux pas. te donc da nga koy gunge. ah bien sûr. ba 2024. da ngaa bëgg Macky Sall jeexal avant 2024. non damay laaj. ah fi mu nekk nii sa décision acte yi ngay posé yëpp ça va dans le sens gunge ko. ba 2024. Hmm. y a pas de problème. merci maa ngi lay remercier <laughs> ci choix bi nga def. ñëw def fii non dama la ko digoon depuis très longtemps donc ne naa la euh, dinaa ñëw waroon naa ñëw bu yàgg. waaw yow nag nitu kàddu nga. Ah, euh, ah, yow moom euh, la nga ma waxoon yëpp def nga ko. ma lay remercier ci choix bi nga porté ci suñu tribune bi pour waxtaan ak sénégalais. di la jox dig daje rek ñu ngi dem ci ay élections locales. waaw dana xumb te neex waaye dana métti nag parce que xam naa ne dina bëri candidat. Hmm. waaw loolu rek peut-être moo ci moo ci mbir. mais am nga yaakaar ne daal. mais mais ñun dañuy gagné. liggéey nga ah da ngeen di gagné. ah oui oui loolu moom amu ci sax warante. da ngeen da ngeen gagné Ziguinchor Saint-Louis. dañuy gagné lu bari de moom non duñ gagné 100 pour cent nag 100 pour cent amatul fenn. Hmm. waaye danañ gagné lu bari. fii mu toll nii xam nga ñun jàpp naa ne daanaka cinq cent vingt neuf commune sur les cinq cent cinquante sept non sur les cinq cent cinquante deux plus les cinq villes ñun ñoo ko yore cinq cent vingt neuf bari na de la coalition wax dëgg yàlla élection bii di yow yaakaar na ne dañ ko war a boo leen ko yokkul du wàññeeku. yaakaaruma dañ ko wàññeeku. d'autant plus que yéen a ngi pàcc pàcc Kër Massar. non non non pàcc pàcc yéen a ngi am un projet entre nous aussi xam nga aussi des fois nit ñi dañuy fàtte. Kër Massar pàcc pàcc wuñ ko d'abord Kër Massar du point de vue de la démographie gis nga ni mu toll te actuellement électorat bi ñuy wax département de Pikine Kër Massar la ne ça c'est d'abord la première chose la deuxième chose tout le monde de deux cas au moins yi nga xam ne yii ancien régime bi defoon na ko fi benn bi c'était le cas de Sangalkam avec le décès de feu Ba ñun ñëpp ñu demoon foofu Massawu Omar Gueye à l'époque Sangalkam nekkoon une grande commune ñu ñu réduire ko ba mu nekk ñaari village ci benn commune. ñun ñëpp ñun ñëpp da ngeen di corriger injustice loolu injustice la du boobu rek. Euh, fàttaliku nga commune Ndobo bi bi nekk Mbaan. Mbaan ah professeur Aliou Diack ak liñ ko fa defoon ba mu def fa grève de la faim jël commune bi rek parce que uniquement c'était du raisonnement raison purement politicienne nga bëgg ko isolé nga def jël commune bi def ko benn village xaw ma tuuti espace commune bi nekk xaw ma cinq kilomètres carrés c'est ça la réalité. suppression ville bi nag. je suis pas au courant d'un projet de suppression de la ville. ah Omar Gueye de ministre bi ko yor moo ne euh, kii décentralisation euh, reconnaître wul ville. mais waxul la suppression. xam nga li nga ne ci loolu lañ jëpp. bon je suis pas encore au courant de ce projet. Hmm. en tout cas donc euh, su su nekkee aussi je si si les gens les arguments pour le défendre ils vont le défendre. mais jàpp nga ne war nañ supprimer ville yi. mën na ne ànd nga ci. mën na ne. mën na ànd non pas ville yëpp xam nga entre nous man li ma jàpp mooy tey jii nii soo jëlee waxuma supprimer ville yi mais tey jii boo jëlee Rufisque je me pose des questions de la pertinence de Rufisque Est Rufisque Ouest Rufisque Nord parce que Tëngéej Tëngéej li ñu xam la ville de Rufisque les gens s'identifient à la ville de Rufisque aujourd'hui sax pour man jàpp naa loolu dañ ko defoon ay pàcc pàcc gëm naa ne ville de Rufisque fa am ba fa la ëppee est-ce qu'il faut faire ces différentes communes c'est une question. demal Thiès demal Thiès charge historique et moom laa la wax moo tax donc la charge historique et émotionnelle revient à consolider la ville de Rufisque pas def ko ay pacc pacc je suis d'accord avec avec sur ça la ville de Thiès c'est la même chose Thiès que j'aime bien dëkk naa fa jàng naa fa. mais tey on me dit Thiès est Thiès ouest xamoo sax fu frontière yi ne les Thiessois des fois pour même pas se retrouver est-ce que c'est pertinent. c'est une réflexion. ah moi en tout cas si j'avais à décider je le fais pas j'ai fait la ville de Thiès ah oui la grande commune de Thiès que nous avons connue et aimée nit ñi identifié wu ay ah, foo dëkk Thiès nord xaw ma sud xaw ma est non maa xam pose problème. merci beaucoup euh, Aly Ngouille Ndiaye euh, maire de Linguère euh, nekkoon fi ministre de l'intérieur euh, nekkoon fi it ministre de l'industrie euh, et des mines nekkoon tamit ministre de l'énergie et des mines ñu sekkoon ak moom waxtaan bu yaatu yaatu ma leen di jox rendez la semaine prochaine ak beneen kàngam boo xam ne dinañu waxtaanee ak moom. Euh, ci secteur boo xam ne c'est un secteur de souveraineté euh, pour le moment nag du ma mën a dévaler son identité mais secteur la boo xam ne daanaka dafa laal suñuy dund yépp euh, te daanaka sax bokk na ci li nga xam ne moom mooy soubassement wu li nga xam ne moom mooy jeu démocratique ma leen di remercier et puis di leen retrouver à bientôt et merci monsieur le ministre tournée économique du chef de l'État, son Excellence Macky dans le Fouta était très attendue par les sympathisants du maire de Airela.